Boa much. Thank you. Wow. lo falle. oui <clears throat> jaayef gars yi nañ def ça va di leen ziar ça va en forme You? Salut les gars. Yes. Yeah. So what? To what? Mm. Salut les gars. Isso era

parce que vous gi gars dañuy woote rek même booy nelaw sa gars dañuy woote dañuy jaaxle mais da comprendre da ngay xam ni euh, rek gars yi parce que pour nous, l'information ne circule pas ak ñeneen donc euh, hmm, loolu donc euh, di féliciter ñëpp ñi nga xam ci xeex bi ñu ngi taxaw ci xeex résistance nous continuer

dafa laaj moyen moyen nag booy nañ ci jàpp waaw lu waaye mën nga jàpp ci képp ku am ku nga yónnee rek nga yónnee ko ko hmm? du noonu oui Lamine waaw Lamine de xam naa ne dafa sonn démb maa waaw ok waaw ok bi ça y est en ah, waaw ok Voilà. Donc, euh, euh, il faut que Nini, donc, nous lolo. Nous savons que du yomb. Du yomb quoi. Nous euh, Disna nak ay Feeling TV télévision yu xuusma yi di wax li nga xam ñun intéressé nous quoi moy lan le procès ñun procès intéressé quoi Ñu bi parce que Macky Sall warul nekk ci Sénégal continuer di président de la République du Sénégal parce que euh, amul critères amul légitimité légitimité bi amu donc suñu xeex mooy xeex pour ko fii te maa ngi wax jeunes yi bul négocier ak kenn négocier y' a pas à négocier ci xeex la ci da nga waxtu négocier waxtu pour parler waxtu dialogue wessu nañ ko bu yàgg wessu nañ ko bu yàgg kon les jeunes la combattants yi nekk ci terrain yi ci Sénégal yëpp lay waxal bu fi kenn kenn gëmuloo nit ni wala ñi ngi pour parler ñi ngi dialogué dialogué wuñu ak kenn ñu ak kenn sen leader sen leader dialogul ak kenn waxtaanewul ak kenn Ousmane Sonko il a été clair lam wax leer na man duma ut benn compromis ci ndoddu Sénégal yi man duma dialogué ci ndoddu Sénégalais yi man du ma a askan réew mi man du ma dem toog di jargo kenn waxaalewu ma kenn bu fi kenn wax ni maa ko wow ne ko nii ak nii Ousmane il a été clair soo gisee acharnement bu métti bi yëpp parce que Macky Sall lépp lu mu soxla mooy toog ak Ousmane pour dialoguer waxtaan léegi bañ boobu nga xam ne amu ko Ousmane bañ na ko te amu ko humiliation la ci moom c'est-à-dire échec la ci moom moom moom moom Macky Sall Macky Sall soxlawul dialogue soxlawul dialogue ak ñoom Khalifa Sall parce que ñooñu ñëpp gaare na leen lan leen di ñoom lan suñu bëggee joxe seen eh, eh, seen eh, sanction mu teg ci kaw code électoral changé assemblée nationale moo koy changé code électoral jeex na sox pour ñoom ñi mën a nekk candidat ak Khalifa Sall waa soxlawul mais dialogue bi yëpp yëpp yëpp Ousmane la soxla loolu lolu mooy problème c' cest à dire c'est une c' à dire humiliation là Macky Sall mom pour mom dafa rëy moom nee na man en tant que man Macky Sall président man ma soxla dialogue ak mom citoyen mu bañ munul top li moo acharnement bi mom la ay procès doomaraam yi procès ñak fayda yi nga xamné yépp tout ça lolu yépp mascarade la quoi dafa lèr ci bopp yi dafa lèr légui ñi naan na Ousmane même bu amé preuve mu na ay Ousmane preuve yu mu am ko jox ko ko juge bi ah. gis nañu justice Sénégal nu mu di doxé do respecté ñu à akku Ousmane respecté ñu Ousmane Macky Sall wax na ko Ousmane def wala ci lu donc c'est fini

ban justice ngay dem yóbbu fofu ñi tok ci télé di wax di ñom ñëpp ñom ñëpp ñoo and ak Macky ak ban yoon mo fi am Sénégal dafa am justice ñaata yoon ñi ngi agresser Ousmane Sonko réew bu ñu force de défense et de sécurité di agresser Ousmane Sonko ay police ay gendarme di agresser Ousmane Sonko di ko pomper pour assassiner ko ala sécurité xana bala ngay bala ngay dem tribunal da sécurité motax may wax juge ah, les avocats de Ousmane la nous fonto avocat Ousmane vous nous ñu Mon nit ñi Clédor il a pris sa part ay ñom maître Cissé ak ñi la bu len Fonto nit ah, bu len fonto sénégalais quoi Sénégal amul sécurité sécurité Ousmane yeen mënu len ko assurer mënu len jël sécurité Ousmane pour Ousmane dem tribunal di len di di wax avocat Ousmane là waxal les avocats de Ousmane bu len ñu c'est une communication boobu ngeen di toog fii laan euh, euh ay Ousmane way boo ko assurer sécurité am dina ñëw wuy si Ousmane Sonko du ñëw wuy parce que sécurité amul Sénégal gis ngeen fi gendarmerie policiers yi bépp ko def sen kanam yenn avocat mënu leen ci dara lan ngeen ci man bañ koy agressé di toj auto bi fan ngeen nekkoon est-ce que yéen avocat da ngeen ci man dara lu tax avocat yéen avocat Ousmane ñemew leen taxaw ngeen ne leen deug fi lañ ko agressé du ñëw wuy si lu ci sen yoon ci ñëw Ousmane pour lan pourquoi ngeen bëgg Ousmane ñëw tok tribunal bo xamne ne tribunal ñu fa tok di siège yëpp ay domaram lañ ñu tok tribunal bi di siège ci procès yëpp ñu fa procès yu Ousmane aji yëpp ay domaram lañ kenn waxu ci dëgg ngeen bëgg ñëw tok wax na bay leen ñom ñi def lu ñi def c'est tout respecter leen sénégalais yi avocat Ousmane am leen droit dem ci tribunal bobu parce que ñun ñun procès bi su yoon ko ci Ousmane wax na leen du procès am quoi Mais pourquoi vous communiquer Vous, les avocats de Ousmane, vous voulez parler de ce, procès-là. Pour là, Est-ce que vous, vous, avez, vous avez les compétences, la capacité d'assurer la sécurité de Ousmane Sonko Combien de fois Ousmane Sonko a été agressé par la, police et la gendarmerie BIP et GIGN. Combien de fois il a été agressé Agressé. Est-ce que où étiez-vous, les avocats Vous qui étiez là-bas, qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, les avocats là et vous voulez donner des gages de oui, si Ousmane, euh, on lui garantit sa sécurité, il va venir. Il ne viendra pas. En tout cas, nous, ses frères, ses parents de la Casamance, on ne le lâchera pas venir. Ce n'est pas Ousmane qui nous dicte. C'est nous qui dictons la loi à Ousmane. Ousmane ne mettra pas ses pieds dans ce tribunal pourri-là. Il faut que nous l'air. Il faut que nous l'air. que nous négocier quoi. Nous t'aimons Fille, da rey il va pas se livrer loolu nga bëgg nga xam ko avocat Ousmane il ngeen jël sa responsabilité quoi te too di wax ci communication ngeen xam li ngeen di wax jox nañ leen respect quoi bu la ñu tooñ quoi bu la ñu Ousmane Sonko ne viendra pas répondre à cette pourriture de merde ce tribunal de mascarade siégé par des imbéciles des traîtres des menteurs des manipulateurs voilà il ne viendra pas répondre. Parce que ce n'est pas son procès. Faites tout ce que vous voulez. C'est clair. Voilà. Des juges de Faisal. Des magistrats de Faisal. Une justice de Faisal. Et vous voulez qu'on vienne répondre. Hein? Il répond à quoi Il faut répondre dans un pays où il y a l'égalité de la justice où la sécurité des citoyens soit euh, euh, garantie. Ousmane est persécuté ici combien de fois chez lui, barricadé chez lui. Et vous voulez qu'il vienne répondre À quel tribunal Arrêtez. du ñëw tontu saram ndeyam la waxul waxul who ak kenn du les gosses de Ziguinchor la Bignona yéen préparé leen ay flèches ñoom bal réel am pop muy jijaaji jonne singaaje na solo singaaje na jijaaji jonne singaaje na solo man ci pare wut leen seeni flèche ngeen empoisonné flèche yéen da ngeen di mel ni dëkk leen Casamance booy yi laay waxal ñu ngi leen di dóor bal wut leen ay flèche yéen xam ngeen flèche lañ daan sachet flèche dem leen ngeen jël feer fer fer six ngeen dem ngeen ngeen mël jël mël mël mël mesure métallique mële ko ba mu ñaw xat xat flèche dafa boo amee lii rek weñ bi na day nii rek ngeen takk ko ci bant ngeen wut buum ngeen wut buum arc comme injien ñun Casamance moo la ñuy nappee fa sachet flèche moo tax génération bi yéen xamu leen flèche ngay wut flèche nga téegal ndeyam flèche comme bal ñoom bal lañ leen di dóor leen ay flèche dem leen ngeen régler seen i flèche jijaa ji ñe si ngaa jëda solul man ji ko taata man joone wéy wéy ñu ñu dóor bal ñu ñu dóor ñun buñ fa nekkoon flèche la ñuy créé flèche flèche moo gën a garaaw flèche da ngay positionné wu da ngay posté wu fenn fu lëndëm nga xëcc ba mu tàlli nga tégal ndeyam flèche flèche ngeen di wut ay flèche dem leen ngeen defar fi yéen waa Ziguinchor Bignona dem leen defari flèche ji jaa ji joone si ngaa jëne solo koma flèche ngeen di defar mais xex xex intelligence la cocktail molotov yaa ngi foofu xeer yaa ngi foofu mais wut len seni flèche ba pare ngeen empoisonné ko man solo ma woy ma wax len ni ngeen di poisonné flèche yi ma wax len jox len poison léegi bi ngeen di diw ci flèche ci ci weñ bi ko ci tégal ndem alaxira la jëm parce que fi œil pour œil le dent pour dent courte que c'est paix par courte que guerre lañu ñu nekk guerre la ñu ak Macky Sall waaw talal flèchol ñi ne atul Casamance dungal al flèchol dada muy kuni fana girampen ku ñila man ku jonen ku si ngajana soli eh? girampen ku ñila man ku jonen si ngajana soli muy pop muy joju ba kala ko banko ku seke ka ko futi kuni ne muy joju manji la koy muy joju manje manji kat ku ñila man ku tik manji kat ku ñila man ku tik é, Oui. Ouais, ouais. alô, alô, Oui. Ouais. ma ne Macky Sall laa la buñ ko rek kenn ku nekk dugub maa ngi gis ñu benn vidéo ñu ne waa ba la xalifa bi yónni pour mu dem ñu négocier ak Macky Sall loolu stratégie la rek. pour pour fexe jot ci président Ousmane Sonko rek pour mën koo demati demati suñu moral ñun. mais ñun bii yoon ñun ñoo dégluwul sax président Ousmane Sonko ñun xeex bi ñun la jara te dañ ciy dem ba mu jeex tàkk. Ousmane Sonko bu mu yab nit ñi.

bu kele ko ñu ñu bàyyi ko tout tranquille aduna àllaaxira man dama ci raxasu duñu dem fenn grand débat stratégie ñu def ñoom pare lañ dem ñu ngi wax Macky Sall la ngi toog di leen bii xaalewu leen sax xaalewu leen terewute def léegi nag li ñuy def mooy duñu négocier fii ak kenn Sonko pour mu dem def ci dialogue du dem fenn Ousmane bés bu Ousmane Sonko demee dialogue wallahi barke alquran karim ñi pare ci mais xam nga xam nga liñ bëgg benn garaadaba qofa walaha waxanaga midbad isaatooda lamida ñoom dañuy dem bii yoon dañoo bëgg Macky Sall ci boppam moo leen di jox naan leen lii mooy suñuy ordre comme comme ça liñ defoon ci bee passé xam nga dañoo joxoon dañoo ñoom dañoo jëloon liñ bëgg yëpp la jox ko sëriñ bi sëriñ bi da wax Macky Sall Macky Sall dara la ci deful ba ñoom giima fa fan yii yëpp lan la giima di sañaa di fàttali nit ñi ci projet bi mi ngi koy bind léegi nag stratégie bi ñu teg mooy ñoom dañoo bëgg wax ak Macky Sall Macky Sall dañ leen dañ leen wax ak Sonko woon lu léegi ci moom la desee léegi dañuy piégé waa Sonko ba daanu waa Macky Sall soxor na éñoon na xorom na pour rey Sonko moom ak waa France Macky Sall xeex bii boo gisee mu am ci fit nii am ci doole waa France ñoo ko ñoo ko ñoo ko xaw xaw ma lan la mais semence su boppam ñu ngi ci gannaaw xeex bi tamit dañ ñun dañ cee war di boole naan bu éclaté na armée France na dégage dañ koo war di dañ ko cee war boole ñu ne fi mu ci xeex bi armée na génn suñu réew dem France si boppam nañu bàyyi France si boppam moo ñu war a bàyyi dañoo war a wax ak Macky Sall wax ak waa France loolu mooy dëgg te na Sénégal bi ñu bon lañ ndax ñu ngi gis doomu Sénégal yaa ngi dee comme ay wéñ jéemu ñoo def dara jéemu ñoo wax dara un deux trois ñu naan armée def na communiqué def na communiqué ñun soxlaatuñ communiqué ñun léegi liñ soxla mooy armée bi da mu wax ñun bëggatuñ waxe suuf fu mu kaw lañ bëgg wax ci kaw moo ñu gënal kuy wax ci suuf ndax réew mi fi mu ne toll na ci toll na ci nii waxa suuf jagalu ko réew mi waxa suuf ko jagalatut Sénégal la ñu tàkkee fu nekk dégg nga wax naan dugoon na Macky na ñu jëlee ñu yóbbu woon Mali noonu ñu ngi wax ne Macky Sall dugal na leen lu nekk nit ñaa ngi koy wax te Macky Sall lu ko nit ñi di waxal rek bu bu kenn xalaat ndax naan dëgg la am dëgg dof la dof bu nekk xel la amul dof amul xel dof la amul xel loolu mooy wax ji loolu mooy wax ji ñun nag ñun dañoo dañoo dañoo demul ci benn kii demuñ ci benn dialogue ñun dialogue wuñ suñu yoon ci dialogue waaw sur ñeenti dialogue Le président Ousmane Sonko bu mu fi bu mu fi ñebe benn gémmiñam di wax ak kenn ñun wax na wuñ ko ak kenn kenn lañ ko wax na wut. waaw waaw baax ngi nuyu ok d'accord Ouais. pas de conférence de presse nel pat Ousmane nel pat noppil Amoul conférence de presse Amoul dara tais-toi et laisse les gens porter le combat là Il y a pas de conférence de presse ne réponds à personne. Tu es chez toi, reste chez toi. Et nous portons le combat. Les jeunes là, allez-y fabriquer, approchez-vous de vos grands, ils vont, vous ils vont fabriquer les flèches. Et je vais vous donner le, comment on empoisonne une flèche. Voilà. On empoisonne les flèche. Allô, oui. Waouh. Waouh, pour Serigne Ousmane Sonko voilà parce que la ñuy bëgg di wax nit ñi Ousmane Ousmane Sonko mu wax dafa leer nee na àgg na terminus Ousmane Sonko bu mu dalee politique ba léegi musul wax loolu bu taxawee wax loolu rek assumé na ay responsabilité non amul ku muy waxal euh, c'est-à-dire femme boobu loolu ñuy wax noonu di leen may bës wala ñu leen di jëm a kii yooyu wax yooyu baaxul non wax ci ci direct ñu li ñu teel mooy ñu xeex ñun procès suñu yoon nekku ci affaire procès procès ñu suñu yoon ko ci waaw dëgg waaw mais yéen femme bi yéen bokk li ngeen di wax ak ndaw si yéen bokk waaw femme bi fay tontu ñi nga xam ñoo dem ci Macky kilifa dem ci Macky Sall négocier pour pour ñi jéem waxtaan. femme bi kilifa diiné lay waxal. ak pour négocier pour wax leen ñun négocier wuñu Ousmane négocier wul femme bi a waaw qui waaw loolu la mais ñun. négocier voilà femme bi bokk wax yéen bokk wax mom moom wax leer nee na bu commencé xeex bi du du arrêté. du ñu arrêté wax na ko de. kilifa diine yëpp dem kenn lañ déglu. kenn parce que ba muy ba ñuy wax fi ñepp a tok sen seen rukk kenn ngaangul. waaw xalif Touba bi waxul xalif Tiwaawan waxul euh, euh, xalifa euh, Omar yeen waxul ñom ñepp waxuñu ñëpp a ngi noppi. ne pat pat kenn waxul dara. waaw ba usu ba xeex bi takarnaase ñuy bëgg a jóg fi sëriñ bu fa ubbi jëm ñëpp dëgg ñu fekk fi nañ leen wan ni ñun gëmuñu leen faalewuñu leen seen yëf taxawaay naa fekk rek ngeen fi nekkee waaye yu ay naa fekk lañu ay seytaan yi ay rambaaj yi fii ñoom ñëpp tekkiwu leen dara lu dul suñu xaalis suñu daratu askan bi ngeen di ngàcc yéen boo leen dayee di ngeen ko layoo ak sénégalais yi da ngeen foog yéen yéen àjjana seen bàyyi ko ku la mënta ku la mënta comment ku la mënta garanti bi du la ay kilifa diine yoo xam ne nekkaw leen fi lu dul euh, lekk riba rek di fen di sos di jaxase réew mi di taal réew mi ngeen fi nekkee xaalisu askan la ñuy dundee xaalisu askan la ñuy dundee comment waaw dem leen toog ak Malet Macky Sall yi ngeen continuer foofu ak Malet Macky ñun fii du ñu arrêté xeex bi Macky Sall danañ ko xeex ba mu jógee fii daf fiy jógee parce que sëñ Mountakha la nga defoon ci vingt deux mille vingt et un du amati fii. fii ñun soxlawuñu la. waaw gëmuñu la. faalewuñu la ci xeex bi sa yoon nekku ci. te jël sa jëbeñ nga toog fi nga toog. yow ak Serigne Mbaye Mansour tëj leen seen jëbeñ ngeen toog fi ngeen toog ah. yéen doo leen yàlla doo leen yónent bi yor leen suñu wërsëg doo leen dara. yoruñu ko de. tous toog leen ngeen téye seen jëbeñ bu la ñu tooj. yéen a dëgg loo leen dëgg ñu wax leen ko yéen a ñu tooña ah. ñun tudd ñu leen taasuñu leen quoi ñu Macky Sall la ñu amal affaire quoi voilà Macky Sall la ñu amal affaire sëriñ bu fu ubbi jëbiñam di nga takk sa caaya nga tëj sa gat toog parce que yéen moom leen nit ñi na ngeen respecté sénégalais ñun ñëpp ay jaam lañ ci kanam yàlla ay jaam santu yéen a xam yéen a Macky Sall ngeen dem négocier yéen a xam Ousmane Sonko bés ah, bu dof dofulee fii ba mu ubbi gémmiñam fii commencé di fi bëgg a wax ay négocier fii yow dëgg ñu dëgg ñu ngi lay xaar yow Ousmane on vous a on t'attend. Euh, Daba Ousmane du ci wax Ousmane li mu wax leer na. da nga ngaan fii rek bu dee yow yaa moom nit ñi dina leer. comment ok duñ fi may dara fii lañ def deux mille vingt et un ñii bu sëñ mu tagga bu ci jëloon gémmiñam heure yi kon ñii dee yëpp ak ñii tëj yëpp. dañ ko duñ leen rey bu ñu fooyee bakkanu sénégalais bu ñu fooyee bakkanu sénégalais ñoom ñi ngi toog seen kër ak seen jabar ñoom seen kilifa diine ak seen i doom seen jabar ba fajar yeewu ñu tegal leen ganaar ñi rek doomaraam yi yéen xale yéen ñun ay nit ñii ñuy rey du ñu ay nit soo ne sont pas des êtres humains yéen ku bëggul saaga seen ndey sa na saaga seen ndey parce que doole nit ñu jub ay naafekk ngeen. ay kilifa naa fekk ngeen ñi ñi ray di tiré ay bal comme ay lapé yeen seen doom yi ñi ngi seen kër ngeen di tok seen salon ak seen caaye seen garambu bi kurus yu bëri yi rëy la meñ xanaa ñi ñi ray duñu ay nit yeen ak gën ñooñu bakkan bakkan yi seen bakkan ak gën ba ñooñu xanaa ñi ngi xaar benn kilifa dina ngaa fi tuddu fi tour Ousmane danañ la saga bi dugg sa caaya sa tubey bu len fonto ñi ñi toppatoo len seen affaire Ousmane mi ngi kërëm ak ay mbokam quoi c'est yoon na ko ci du dem procès tey du dem procès ëllëg du wuy ji Macky Sall danañu ak moom loolu moo fi ama te ni koy xaar ba mu fi fa ay ay négociation fi yo yo gis nga sa xol moo Ousmane yo sa xol moo lay sonal yow sa xol da nga trop boo dégluwoon M2D 2021 kon heure yi Macky Sall téegal nañ dem ci biti kon waxtu yi du ñu waxoon Macky Sall ñu wax leneen mais yo intervention Mountaga ñepp dañu bañ mais yo ya ñaan ñek ñepp deugal la ñi nangul la mais nangul buñ la nangul mo la duggal ci problème yi Ousmane mo la duggal ci problème yi sa xol bi mo la duggal ci problème yi parce que da nga ne Macky ñi bay ko bu continuer mu égalé xolal Macky Sall lu mu lay def tay négocier

ma wan leen poisson bi ngeen empoisonné ngeen yoré ko ñoom ñi bari boy yu bari yoré flèche police gendarme bu jëlee ngeen tégal ndem flèche ñu sul flèche la flèche c'est facile da ngay da ngay da ngay laxu rek da ngay posté rek di tégal sen ndey flèche di daal di ñe si ngaan des fii guerre la ñu nek ah. voilà bu faut pas nous emmerder là négocions ñu ak kenn par avec personne qu'ils arrêtent nous étions avec euh, le porte-parole du général des y avait également. donc nous étions venus. Euh, à son monsieur le président de la euh, le dernier sermon prononcé par Cheikh lors de la prière de c'était un serment qui était plein d'enseignement plein de sagesse que nous devons maîtriser, nous autres, nous autres Devant une situation où aux enseignements d'orthodoxie, aux enseignements de foi. mais surtout de Touba di lor sénégalais, yi xoolal parler de certaines valeurs moi ça que nous devons conserver que nous devons préserver pour l'établissement définitif de la paix au Sénégal. ah, oui. La fraternité musulmane, les liens de regarde Les liens de que nous devons construire. Il a également témoigné que tous les, toutes les communautés musulmanes du Sénégal Regarde les satans. une considération à Cheikh Khadim. Une considération sincère et qu'ils ont manifesté. Et le calife, il dit qu'il témoigne que cette considération est sincère. Bah, et par rapport à cela, donc, il doit le dire qu'en retour, nous autres disciples de Cheikh Amadou Bamba, nous allons encore nous évertuer à les prendre en considération de façon beaucoup plus approfondie. Et par rapport à cela, il a invité tous les frères condisciples à redoubler d'efforts dans l'adoration de Dieu, surtout en prenant Cheikh Amadou Bamba. Ce n'est pas à vous de nous apprendre à adorer Dieu. Il est il est serviteur. Donc, si nous voulons le servir, il faut le servir dans les valeurs enseigné par l'islam. Et euh, la valeur la plus essentielle, la plus fondamentale, c'est la fraternité musulmane. Il n'y a pas de, fraternité musulmane. Il faut de la solidarité. Il faut qu'on sache que le Sénégal nous appartient à nous tous. Et pour bâtir ce pays, il faut qu'on le fasse autour de, des valeurs communes. Donc le Khalif a insisté sur ça. Et je pense que c'est un message fort qui a été très bien entendu à un moment où le Sénégal en a. Foutez le camp. Wait. Wait. Wow. Wow, wow, wow. Wait. ça va. Wow. boy, n'a nekku sewuñu quoi bu faut pas appeler les gens ici Vous ma hein voilà vous faut pas m'appeler ici nous que de négocier on ne négocie pas on ne négocie pas avec un criminel on ne négocie pas avec un menteur on ne négocie pas avec un assassin on ne négocie pas avec une justice pourrie corrompue on ne négocie pas soit dañ ñu koy rey ñi rey ñu mais moom du dem loolu moo fi am dañuy xeex objectif bi c'est le départ de Macky Sall waaye ñun falaw ñu ay négocier nekkuñu ci ay négocier oui. allo oui allo. alors grand daba genre gars yooyu da nga di bloqué. waaw yow da nga leen ay ay ay infiltré lañu. doomaraam yi taxaw di ma woo fi naan ma boo ma woo soo ma wootee fi di wax négocier ma toj sa coppu ndeyam bu ma fi wooti. barki xolal barki yaa rasulillahi gis nga booy bi gaay bu ñu delloo ginnaaw mooy dee nañ ñoom ñëpp leen jàpp. waaye ma ne fii bo dañuy xeex. xeex bu bon amul dara amul lu ñuy négocier gis nga ñooñu ñoon dem pare seen bopp rek lañ fi nekkal. waaye yow ma ne fii kilifa diine yi moomuñu nit ñi. ñi kilifa kilifa intérêt la moomuñu nit ñi. xam nga la moom la moom a jaaxal ci affaire bi ah ñoom dañuy bàyyi ba nga boo jeekoo waa ji ñu commencé di def def ay ay médiation bu bu ñu seetalee léegi waa ji dem defaruwaat reer sénégalais yi waay yow fii lañ ko jekku fii deux mille vingt et mu tala dugal ci gémmiñam ah xoolal bul ci kenn seet dara parce que xam ku fi dugg wax ma saaga sanday da baax da baax waay gis nga ñu amee problème courant du sëriñ si moo leen koy fayal bu ñu amee problème location du kenn du leen si fekk si gars yi ñooy góorgóorlu di taaba taaba di ko fayal seen bopp sax nga fi may waxee kon amul lenn lu ñu lu ñu fi arrière ak di seet parce que ñoom seen bopp rek lañ fi nekkal nag wax naa la ko nag daaree noonu da leen di bolo bu leen jël ok ok grand nekkal si jàmm Cheikh Fall fii amul amul négocier négocier nañu deux mille vingt et un ñi rey Sénégalais yi ñuy rey yëpp ci négociation la ñoom ñoo intervenir ñi rey gis waxal dëgg bu méttee nga wax dëgg bu neexee waxal dëgg fii ku fi dee ak sa négociation bi dem négocier ba Macky Sall defaru mu dem jëndi 45 milliards jëndi ay arme ay gànnaay andi ay façon xeetu nit ñu nekk jox leen arme ñi dajji kër jàmbur di téy doomi jàmbur di dóor di rey di tëj négocier wuñu ak Macky Sall négocier wuñu ak benn sëriñ fii nañu dem toppatoo seen njaboot voilà loolu mooy dëgg quoi et puis boo ko fi taxawaatee ma xaaral ma but shit sa ndey sa nga jóge sama plateau bi quoi parce que man c'est traite là du ma fi nekk di wax ak yéen xa attama bloqué sa ndey quoi man man on ne négocie pas C'est clair Boy, la bi day tant que Makissal Sall ay dem bi du arrêter continuellement Auchan Total Shell tous les même les banques françaises banque boo pour France hôtel français voilà brûlez tout ce pays-là, on va pas. Euh, n'est-ce pas Ils veulent que ce pays-là, euh, euh, qu'on foute le pays dans la mer. Le pays sera dans la mer. On ne négocie à personne. il faut aller faire les flèches. Oui. Tu sais, les gens, ils se foutent de la gueule des, gens. Quoi. ils, vont tous se faire foutre. Ça fait un an, les gens, ils sont dans la misère. Ils ont enfermé tout le monde. Ils ont tué des gens. Ils ont gazé les gens. Ils ont... Non, mais ils nous parlent des négociations parce qu'ils sont dos au mur. Qu'ils aillent se faire foutre ils aillent tous se faire foutre. Y a pas Soit on meurt, soit ils meurent. Mais il n'y a, y pas de négociation. Voilà. Ce bâtard de Basse Abdel là, tout Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de On meurt ou il meurt. Nous, on est prêts, c'est pas grave. On meurt ou il meurt. Mais il n'y a pas d'autre chose. Ouais, ouais. Négociation. Il faut appuyer les gosses financièrement. Appuyer les gosses financièrement. les patriotes. C'est tout. mais euh, d'abord, ceux, qui m'écoutent, c'est bien de brûler les maisons, tout ça. Mais aussi, il faut qu'on cible les cibles. Il y a des cibles. Euh, des, des, mais des symboles qu'on doit, qu'on doit viser, comme les institutions, euh, les mairies de, de, de, APR, tout ce qui est mairie de APR, les préfectures. C'est ça, c'est ça le, symbole de la République qu'il faut attaquer parce qu'il n'y a plus de symbole ici. Les maisons, c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Et vraiment, euh, on peut, on peut rien dire parce que euh, les jeunes font un travail remarquable. Excellent. On on peut pas le voilà. Faut vraiment, hein, eux, on parle même plus parce que c'est même plus une mention spécial pour eux. Ça a dépassé le cadre. Donc Ziguinchor, vraiment, euh, je crois que euh, euh, c'est une ville où ça a été certainement un peu sous-estimé, où ça a été mis à l'écart du Sénégal. Et aujourd'hui, on voit que cette ville de Ziguinchor, c'est elle qui va libérer le Sénégal. Donc c'est fort, c'est vraiment fort ce qui est en train de se passer. Il y a toujours une place quelque part dans une libération, il y a toujours quelque chose, le symbole, et nous, notre libération, ça va être la ville de Ziguinchor. Donc vraiment, euh, après ça, on va, on va j'espère qu'après cette victoire, on pourra fêter, euh, fêter ça. Mais aujourd'hui, je pense que les choses qui sont à faire, c'est de viser euh, plus haut. Là, il faut qu'on monte crescendo. On a le pouvoir d'abord, hein. les gens, on a le pouvoir en main. Il manque juste la société. Donc, pour en finir, il faut en finir. Ça veut dire les préfectures, les postes de police, l'aéroport. Il faut, moi, j'avais dit depuis le début, il faut, il faut barricader l'aéroport il faut qu'il n'y ait aucun vol qui rentre, il n'y a aucun vol qui sort. Il faut vraiment, tu sais, il faut que le pays soit à l'arrêt pendant 24 heures. Que personne rentre, personne sort. On immobilise l'aéroport, on immobilise le port. Si on arrive à faire ça d'abord, je peux vous dire que c'est bon, le combat est gagné. Sans qu'on n'arrive pas à monter, parce que là, c'est bien, hein, mais il faut qu'on monte. On, on, on, on, monte à un autre level, tu vois. Il faut qu'on arrive à monter à un autre level. Il faut qu'on arrive à monter à un cran pour montrer notre détermination. On, on ne cédera pas. C'est pas la peine que quelqu'un vienne parler ou négocier. C'est mort. Et on va leur montrer que c'est plus les maisons, même les, d'abord, c'est bien les maisons des, de, comment ça s'appelle, les farbangom, tout ça, c'est bien. Mais les juges, c'est eux les problèmes. Les juges et les procureurs, c'est eux les problèmes dans ce pays, d'abord. C'est eux qui ont ramené le pays à ce niveau-là. Parce que même si Macusel il avait un plan, et si on avait des juges et des procureurs droits, justes, on ne serait pas dans cette situation. Donc c'est eux les premiers ennemis de la République, ces juges et les, ces procureurs qui ont pris des, décisions injustes et qui ont ramené ce pays-là dans cette situation. Donc c'est eux qu'on doit attaquer, leurs familles. Il faut cibler leurs familles. Tout ce qu'on, tout ce peut repérer, il faut balancer les adresses. Voilà. Ok. Allez. Ciao. Les procureurs là, cibler les procureurs, les juges qui, qui sont en train de prendre la justice là, pour, pour, pour, pour, pour plonger le pays dans le chaos. Il faut cibler ces, ces juges-là. Il faut se poster, embuscade, embuscade les juges. Mané, bu ñu jëndee ak seen auto yi da di embuscade il faut les embuscades juges yi ñoo Sénégal juges yi siège nii di di téye suñu justice di ko caxat caxate ñoom ñooy problème Sénégal ñoom ñooy taal Sénégal topp leen juges yooyu fu ñu dëkk seen kër yi bu ñuy il faut ngeen leen di espionner bu ñuy jënd seen kër yi ak yooyu ngeen ciblé waaw la les juges là waaw les juges magistrats yi ak juges yi taal euh, euh, bi toog ci procès bu euh, ay procès doomaraam ñooñu ngeen di seet il faut ngeen rëbb leen wut leen seen kër xool fu ñuy jënd yan waxtu la ñuy jënd heure la ñuy jënd seen njaboot waxtu heure ban école la ñuy jàngee voilà loolu mooy allo oui waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam man la Marie. waaw. ça va maa ngi dégg li ngay wax. Mhm. amu ci benn négociation. ñu ah. ci mhm. négocier ñun ñooy perdant yi. négociation du fi am. du fi am. Mhm. xoolal beneen Mamadou Dia la ñuy bëggaat waaye nag bu ko fi du fi amee de ñii comme ay dëmm. waaw bi Macky bi di jënd ay armes fu ñu nekkoon. lan lañ ci wax. dinañ ko bàyyi mu def lu ko neex. préparé wu. est-ce que bi toog na mu ne Macky Sall fan nga toll ak référendum ak ka e, candidature bi nga gars yi joxoon sa candidature sa doléance bi candidature doléance bi ah fan la ci toll est-ce que laaj na ko ko ah boobu ba tey Macky Sall lu muy rey moom lan la ci wax lan la ci mhm. wax fi mhm. kenn du négocier bu ñu négocier wala dinañ ko regretter regretter ñu négociation non négociation amu fi soxna si lu ñu coûté ñoom seen wax la ñu wax xam nañu ne que xam nañu ne le système est menacé ñoom seen bopp seen i poche sont menacés moo tax ñu bëgg commencé naan négociation billahi wallahi wa taalahi bu ñu ko nangoo mooy dañoo négocier ba kenn pro dañoo négocier avenir Sénégal négociation mooy yàgg a yàq Sénégal soi-disant indépendance par négociation ba tey ñu ngi koy subir ñu ngi koy dund doy na fekk nañu continuer nañu continuer xeex bi waaw mairie préfecture gouvernance bu dara def koy da Objectivement, Macky Sall dafay génn Sénégal. après ñu juge gis nga gouvernance préfet sous préfecture yi. juge ak magistrat yi seen juge ak magistrat yi avocat yi avocat système bi ñoo taal réew mi ñoom ñoom. ñoom ñëpp bu leen bàyyi kenn amul négociation il faut ay bas Abdou Khadre dañ jaay exemple ñooñu sàcc alalu réew mi toog si ñoo yee di négocier ñoom ñoo yee di bëgg négociation parce que xam nañ lu ñu def nañu dimbali Puro bañ koy malmené di ko sonal di ko sotti produit bi fan la ñu nekkoon. est-ce que wax nañu ah est-ce que wax nañu yàlla moo bañ mais tey nii bu yàlla defoon ay pexe Macky Sall sotti comme tey ñun dañu yàq. mais Macky Sall amul lu mu deful fi ah ngi stressé ah amul lu mu deful. Macky Sall lu mu deful président Ousmane Sonko. empoisonné ko posé jël ay police ay gendarme ces jeunes dit ah, ñoom lay utiliser pour empoisonner Ousmane Sonko ngeen doomu xaram yi taxaw naa na dem procès ah. ban procès léegi ñoom ñëpp ñu gis loolu ñu gis loolu ñu xam ne que Macky Sall il est en position de faiblesse rek ñu ne xaaral ñu jóg négocier moom la ñuy jàppal tànk ay doomu xaram la ñu ne Macky Sall ñii la dañoo sonn temps yëpp kenn nelawu nit ñi ngi stressé di suivre affaire bi keroog bi nga fanaan loolu man da fekk ma fanaan liggéey mais dama fanaan man tam di xool kenn nelawul nit ñi ñu si fii dix-neuf heures de temps maa ngi toog di wax. non non non. dix-neuf maa ngi seetaan lépp maa ngi seetaan lépp. deux fois quatre heures mu huit heures. ak benn ah, neuf heures de temps léegi ñoom taay boobu. waaw ah, taay bu nit ñi demee ba bëgg a gis ci jàmm ñoom ñëpp bokk ñëpp jot ñoom ñu jàppal ma ci tànk pour mu jugaat. pour la ok

yan laa wax yeneen région yi Kaolack Saint-Louis yéen yeneen région yëpp jóg leen ñu taxaw fii xeex bi mooy il faut que Macky dem mu abal ñu suñu bëggee jàmm Macky Sall na dem réew mi dal Macky Sall tant que mi ngi Sénégal fii réew mi du dal kenn du am jàmm Macky Sall day dem loolu mooy objectif non kuy rey pour lan dama génn yërmande. criminel assassin buy rey ngeen bëgg ñu dem tok di day dem. wa il faut mu dem rek billahi wallahi tallahi la dem foo lañuy sax ngir yàlla bu mu wax. boy sa foo ba tax jëni arrêté won bu mu wax xex bi changé leen xeex bi yëgal leen ko magistrat ak juge yi toog ba réew mi tàkk Macky Sall ñooñu seen kër. fexe leen ngeen xool seen kër ba xam ñoom fan la dëkk. ak ban waxtu la ñuy jënd ak seen oto yi yan heure la ñuy jënd seen njaboot yi yan heure la ñuy jënd fan la ñu dëkk rëbb leen ñoom ñëpp muy juge magistrat procureur euh, euh, waxuma de mais dama ne ñiy far ak Macky Sall xam nga leen ñoo ñëpp xam nañ am nañ seen liste ñooñu la top topp ñoom ak waa waa APR seen kër yi ñoom ñëpp ba pare na ngeen banque français bépp banque muy banque français entreprise tubaab société tubaab ci biir Sénégal na boy na takk. na booy na lépp booy. booy dañuy xeex suñu bëggee ñu am jàmm mag na toog mu toog rek. voilà waaw dafa doon seetaan boobu ba tey na continuer seetaanam rek. ok dafa seetaan deux mille vingt et un seetaan deux mille vingt deux ba tey ñu ngi ci deux mille vingt trois mois de mai. bu bëgg a julaat bëgg a yàq ñoom li ñu liggéey boobu yëpp ba tey. Mhm. non non non non du demee noonu. ok du demee noonu nañu dimbali. ok pro daal moom bu mu wax. dem ko bu mu wax de. bu mu wax waaw d' accord ok. dem leen ok merci. dem leen dem euh, prisonnier

ngeen jël fer six dem ci ci ci menuiserie métallique mu daas ko ba mu ñaw xut ngeen def ko ngeen dóor ko comme ay comme flèche indien xam ngeen flèche ni ñu koy defaree ngeen takk ko ci bant poison poisonné poison demal nga jël yàqu nit <laughs> booy xeex la ñu nekk de xeex barke nabil Moustapha xeex lañ nekk waaw ngeen empoisonné flèche bi même boo ko empoisonné rek laxas ci sagar rek këcc doof ko ci pétrole taal këcc comme indien yi këcc rek dóor wut leen seen arme seen flèche ñoom ñi ngi yore bal di dóor wut leen flèche yow boo wutee flèche nga posté nga camouflé ci benn ruq da ngay rek téegal flèche wut leen ay flèche fii xeex lañ nekk de cocktail molotov flèche dañuy il faut que Macky Sall il faut que mu dem il faut que mu dem parce que tant que Macky Sall mu ngi Sénégal du am sécurité sénégalais du ñu am sécurité tant que avocat yu mu àndal ak juge magistrat yu mu ñu ngi Sénégal du am sécurité sénégalais du ñu am sécurité sénégalais du ñu nekk ci jamm réew mi du ñu nekk ci jamm ñepp lañuy terroriser ñepp lañuy ñuy fi xex mo fi am xex mo ñuy may du ñu am suñu liberté dañ koy xex du ñu bay kenn suñu liberté dañ koy xex way way soxna si waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. c'est pas médiation bi dañoo jóg ñoom ñu dem Macky Sall moo woote la woon noonu. waaw la même chose. moo. moom la Macky Sall moo woote. ñooñu gàdd ñooñu ñoo mu bëgg a teg glace ñooñu ñoo gàdd seen tànk dem fettali seen poche. waaye booy bas lu mu ci wut. bas Abdou Khadre mooy doomaraam kooku mooy gën a ñoom ñëpp. ñoom ñoo teg deal bi dem ci Macky Sall du am fii ñun liggéentewuñu fii xeex la kenn du arrière ba pare nañ nañ moytu tey ci guddi dañuy jéem a teg glace ñu dem piège pro pro nag bu mu genn wax pro moo leen gën a xam ne xew buy wax ñu koy localiser Ousmane Sonko na tëj gémmiñ amul conférence de presse no du wax xamuñu bu leen may ñi xam fi nga nekk waxul waxul waxul. moo leen gën moo gën a muus ñooñu Macky Sall moo bëgg a teg galaas moom moo woo xaalis xaalis ne ko doo ma dem damay yónni ma woote damay yónni. waaw lu leer laa la wax. voilà voilà muy muy muy muy muy muy bëgg jël sotti glace y' a pas de ça ba pare am na benn avocat bu nekk Ousmane Sonko ne ko Ousmane Sonko mooy taxaw foofu naan dafa war a wuyu ji c' est pas vrai. waaye kooku doomaraam la avocat boobu doomaraam la Ousmane du fu yuy yow waay nag nu mu tuddati sax. foofu fàtte naa ko kanam boobu dina mbër bu moom Macky Sall ñoo niroo yow na nokk ca kan ba pare tey tey ci nañu moytu xol armée na ñëpp tey ci guddi duñu bëgg a def pare bëgg bëgg accusé pro de rebelle nañu moytu tey. waaye ma yooyu yooyu ma si yooyu bu ko sax wax fii ñooñu xalaatu xalaat ñoom nañu wax lu leen neex. ñoom xam nañu ñoom xam nañu ñi rebelle ñi ngi ci àll bi ñoom xam nañu fu ñu ne. voilà. te fi mu ne nii xam nañu dëgg bi quoi duñu dugg ci communication ñoom nañ ñoom ñooy jël seen responsabilité fi mu ne voilà dossier politique la on le règle politiquement mm-hmm. c'est tout voilà Ousmane Sonko dafa leen gagné ci politique gagné leen ci projet gagné ci vision gagné leen ñoom ñëpp voilà fii amu fi résistance booy yi ñooy résister waaw ñoom ñooy nekk di tirer booy ay bal comme ay lapin booy ñi ngi résister waaw te ñuy résister tey ci guddi moom booy mobilisation exceptionnelle à Ziguinchor yéen ñëpp pare leen voilà yan laay waxal yéen góor ñi ni ñi ñu ngi takk seen tubéy di xeex yéen góor Ziguinchor yi pas yéen ngi ne pat jigéen ni ñoo jëlee di xeex maire yi ñoo jóg di xeex ànd ak seen i doom di xeex yan yéen góor Ziguinchor yi Casamance yéen a ngi toog yéen xanaa amu ay xuur doo leen ay góor yéen doo leen ay góor. ah buleel bu mag bi jotee ngeen sol seen caaya ak seen galaaj yi yore seen paaka seen jaas yi di jamante ñu ngi déggal ndey seen doom yi si biir si ngeen jotee da ngi toog da ngeen a ñàkk jom rek ñàkk jom. allo jigéen ñi ñooy xeex yan góor yi ngi takk tubéy toog ci kër yi waaye allo. waaw El Malick. oui oui mais lu ma la lu ma la bëgg a ñaan nga wax waa waa waa waa fële Mhm. Euh, Ousmane Sonko fu mu fu mu nekk pour gaan tëbal ko foofu noonu dem denc feneen. non non non Ousmane kenn du di wax fu mu ne. ñoom kenn xamul fu mu ne. voilà kon dossier boobu moom nañ ko nañ ko béy du fi wax. paa yi paa yi paa yi ak maire yi yëpp maire yi bu ñu génnee ak Sylvie bi rek coow bi jeex. waaw mais jigéen ñi ñu ngi jël dama ne jigéen ñi ah. ñu di xeex góor ñi ñoo toog. paa yi ñu paa ah, yi ñu ta bu góor bu ñu góor bu ñu tooyee jigéen mënu la may xeer am na jigéen mën na jeexal xeer bi parce que bu ñu jigéen tooy rek si ma si rek sayli ci li bi rek bu dañuy gaa yëpp ba bàyyi oui loolu kese loolu moom moom a gaaw jeexal affaire bi taf taf gaa jeexal ko comme toog fii di jéem ñi ñi fii paa yi paa yi war a gën a yi maire yi yëpp la ñu war a gën a suñu seen ji bàyyi rek gaa gaa mbay Ok. Comment Personne. On ne négocie avec personne. Personne. Oui, il n'y a pas de conférence de presse, s'il vous plaît. Pas de conférence de presse. Reste dans la miette. Écarte-toi de ce combat-là. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, assassinés. Il faut penser aux victimes. Réfléchissez et pensez aux garçons qui sont dans les tombes, les Sénégalais qui sont emprisonnés, qui sont torturés, qui sont persécutés. Voilà. c'est marabouts qui viennent pour négocier, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Il n'y a plus de marabouts ici. Ici, c'est un combat de survie. C'est un combat pour la dignité. C'est un combat de survie. On tue les citoyens sénégalais comme des mouches, comme des lapins. On les fusille comme des lapins au Sénégal. Et l'opinion internationale est au courant. Ils rentrent, ils démontent, ils défoncent des portes, ils vont les cueillir dans leur maison. Même les innocents sont cueillis et assassinés froidement avec le régime de Macky Sall. Et vous voulez que les gens aillent, il n'y aura pas de négociation. Et je, lance un appel à la jeunesse sénégalaise là. Vous avez répété les mêmes erreurs en 2021. On ne déclenche pas une, révolution et on l'arrête. Ça sera le retour du bâton. Et vous avez subi ce retour du bâton. Vous avez été persécuté chez vous, Arrêtez assassiné, tabassé, emprisonné et tué. Vous avez répété encore la même erreur. Deuxième vague, deuxième déclenche de, révolution, vous avez arrêté. Ils vous ont tabassé. Cette fois-ci, il ne faut pas arrêter. Si vous arrêtez, vous allez signer votre certificat de décès. Ça, je vous le dis. Ils vont tous vous tuer. Ils vont tous vous éliminer. oncle euh, bosumai kesumai kep tonton eh, daba inge mamang be manyi bu kati kujola kanya kazamas wawla kwe buroka bole nyabuko emmandor funine folel ke buko di karamba ko ko mani bo buku teb eh ah eh, sankende sankende man ko jam yoni mange be man funine kanya kazama ko di jadi buku teb funine kanya kazama du man kana ko funine ko kudede ɗi mhm. fonde jike rañolel sonko mambo mambo sijjan kadi sikkuru babu ɓey joyi ku gara do mo kuppuji dow sindoyonin sagama jisanken de kuseke kep konde futi ah? kuseka kupire mo konde futi kunine kop mankula ke mumru jisanke manku jam jahali jahali kunine kaña sagama usop binjona usop binjona bulu tu nulokel be be usuyi ku joola kandoña ujuki jaadi bu kute bu daten umañ kana ku malegen sagama se bajo bajo dikondekat kuñiila ko numanje ko kula koye yoolil yooli kuñiila kajeeɓe rambeni kajom di kukat kuñoolil man konde puc kuñoolil man buko fi ko numanja ku bamban duniya yoolil ku lakko man kuñoolil ku buko ku fok kuñoolil eh, sanken parce que il faut manju pour manju sanken watu wonore inge fa wi manju watu wonore watu wonore ku jola kanya kazamas mambo ku tek asek akoka fula kola mana kur mana yet buko kazi kanya kunine bukute buringia tate panujuk anak akike tate pucaya pucaya cinquante mètres wakonde kok eh, de ca de de de caya kilométrique comme sikan kuranga sosay sikan konde sosay ton ko warña ku purenum ku ku ku jonen casamance man ku jongordi ko ko wakonde ku baj ka puñ mukk wakonde kok baningemu de lanse di kunyila kayegenya babu kunyila kungiri yalla jikano sikagul jikano sikagul jakum jikatu ula wolu mamamu sollen ay kagul ngiri yalla kagule len makke leen seen kanam yi comme que seen bàyyi nangu leen génn nangu ñu génn pour ñu jeexal xeex bi takkal leen ay kagul te ngeen dem uti ji ay tul ngeen tulu jeune Casamance yi bëri ñu nekk Bignona ngir yàlla génn leen ngeen àndaale ak seen tul fekk xale yi nekk jigéen sor ngeen jox leen si tuli ñi takk ñi jeexal xeex bi benn yoon may may naan ñi naan il faut que négocier am waaw bañu ma if ma ñu toog waxtaan waaye waxtaan bi balaa ñuy toog waxtaan il faut que nañu tàngal suñu yaram bi ba ñu tàng bu boobaa bu ñu toogee table di waxtaan ku nekk dina xam lan moo ma teg si table bi pour waxtaan waxtaan mënul am instant yi ni tant que su ku nekk xamul doole moromam. waaw ah, yow fii. waxtaan mënul am. Ah, du am de. ngir yàlla kagule leen takka leen ay kagul daba babaji babaji ende yow ni boo ñu bi bu joo ma nee ni ah, affaire boobu joolaay xam nañu luñ koy dóoree xale bu ñu sonn di jël ay xeer di sandante jëlal loolu koo ko visé boo ko reyul di di di di dinañ ko laaj dinañu ne du xeer moo ko dóor. bu leen sonal seen di jël ay xeer utiliser nag euh, nekk bi njoona aussi xam nañu kii boobu koy dóoree ok ok ok merci d' accord boo ma mënee woy après live nga woo ma quoi mm-hmm. waaw baax na mm-hmm, mm-hmm. ok d' accord alors ok ok wax yow négocier amu ah, fi ya euh, euh. amul négocier on négocie pas fi kenn du waxtaan ak kenn xeex bi day continuer xeex bi continuer diaspora bi takk leen seen tubéy góor jigéen mag ak ndaw takk leen seen tubéy ñi jàppale ñi jàppale boy dañuy xeex ñun mission lañ am objectif mooy jënnee Macky Sall fii il faut que Macky Sall dem pour sénégalais yëpp nekk jàmm ñu mën a toog waxtaan ñu tabax suñu réew mais tant que Macky Sall mi ngi fii Sénégal du mus a am jàmm loolu mooy problème bi tant que Macky Sall est là. Sénégal du Moussa a am sénégalais du ñu am Diam sénégalais réew mi ben institution du dox tant que Macky Sall mi ngi fi ma wax len ko tay fi nu mu def nu mu di di def ak sénégalais di barricade di ray mom ak groupe mi ak gaay yi mënul tabax réew waaw mënul tabax réew c'est pas possible on ne négocie personne fi boy, yi continuer seen xeex bi te jeunes yi wut len protège kagoul boy xex kawul journaliste nek ci terrain bi di filmer boy bo len leen gisee journaliste bu filmer toj len caméra parce que ñom ñoo leen di filmer ba pare dem tok ci sen télé yi di len yolé journaliste bu filmer rek nga toj caméra attaqué len journaliste yi filmer ni ñom ñoo leen di yolé way allô oui allô waaw en fait euh, lan la bëggoon ñu yokk ci affaire bi parce que depuis début histoire bi ba léegi la famille de Adji Sarr n'est pas inquiétée donc il faut nous commencer à attaquer nous attaquer famille euh, Adissar. non famille Adjissar. Sarr dara. Ah. Adjissar, c'est magistrat et procureur ak mais la famille de c'est un dara quoi wax bu ñu quoi. nous depuis histoire. mais mais mais d'accord mais mais nañu régler problème ak seen doom ñu bàyyi leen ko ñun Macky Sall la ñu amal affaire ak magistrat ak juge yi ak ñi ànd ak ñoom ci complot bi ak ñooñu ak français ñun noonu la ñu amal affaire. ak famille ak famille famille kii itam policiers yi parce que ils sont pas inquiétés ñu ngi tiré seen famille ne sont pas inquiétés c'est ça le problème. ah waaw mais boy nañu cibler kër famille famille policier bu nekk. bu ñu rey ñu dem attaquer famille ñi rey leen c'est tout. loolu la c'est tout c'est tout c'est parce que bu ñu reyee seen famille seen waa commencé seen doom yi seen njaboot du ñu tiire ci booy booy Ziguinchor yi xam ngeen fu fu seen policiers yooyu fu ñu dëkk xam ngeen seen jabar yi ak seen doom yi ciblé leen seen doom yi ñoom ngeen rey waaw voilà c'est ngeen rey parce que policier loolu rek mooy mun a tax policier bi arrêté di tire wala gendarme bi dóor nañu bal Dembe, ray nañu ñetti wala ñaar dem leen ngeen fu policier nek ci famille dem leen ngeen leen choc ngeen attaqué keur gi ngeen famille bi policier bi bo leen ko Voilà lay jot wala gendarme bi ngeen dem attaqué leen xam fan la xex lañu nek dem leen ngeen wut flèche ngeen préparé seen flèche xam ngeen nu flèche ku ci nek trente trente flèche quarante nga sol ko sac nga téye sa flèche bul solo sa bopp da ngay posté rek ci benn position rek visé visé ko voilà posté ko ci position rek visé wut leen seen flèche partout ci Sénégal képp ku mën a jëfandikoo flèche nga wuti sa flèche xeex lañu nekk amul toog fii di expliquer parce que objectif bi mooy il faut que Macky Sall mi nekk di taal réew mi moom ak ay magistrat ay juge moom ak ay euh, euh, ay ay policier Faisal, général gendarme euh, juge Faisal. justice faisal dégg nga lu ma la ñooñu ñëpp ñoo nekk di tal fi rew mi fi ñom ak Serigne faisal yi ñom ñëpp tout le monde ñëpp cible lañ buñ fi bàyyi kenn xeex bi bu kenn arrêté waxon naa ko fi ma ngi leen koy waxat 2021 ñi def intervention ñi arrêté xex bi Macky Sall dem na deug na li ngeen wax mu dem gànnaayu ñi tek ci 2 semaines mu jenn fi la la wax fi li fi amon dot fi amat. jël 45 milliards dem jëndi ay armes ay gànnaay ñëw teg muy continuer di japp di rey di tej sëriñ saa tok fi ngi tok fi parce que ñom sen doom yi ñi ngi sen kër ak seen soxna ñom ñi ngi di michi kat kër climatisé sen tok climatisé sen ñom ñi ngi nelaw di di ndekki ñi sénégalais bés bu nak ñu sul ay nit ay boy ñu dóor leen ay bal policier ñi ngi door gendarme ñi ngi door ay bal yéen kenn waxu ci melni ñen ñeen seen bakkan ñoo gën bakkan doomu jàmbur yi yéen a ngi toog ñu jekkoy Macky Sall ngeen fop seen kala ak seen chaay ñoo taxaw di rëy lamiñ ku fi ngal ñu téegal sa ndey parce que yéen respecté wu leen sénégalais voilà légui fi amatul cër cër jexna parce que boo déggee da ngay jox sëriñ bi cër daf la jox cër yow mais joxu la cër nga respecté sa bopp yàlla sa daf la jox cër yàlla yàlla mi la sàkk jox na la cër parce que jox na la jumtuwaay yëpp pour nga mun a dund woyalu. Euh, maa ngi ziar. ñu ngi nangu ziar. waaye tey ndax bësu xeex la ci merci merci. waaw. du bësu ziar ci xeex lañ toll man population Dakar waa moo ñoom laay laaj lan mooy seen problème. Eh, Ousmane Badji dégage. sa conseil dugal ko sa caaya. population Dakar lan mooy seen problème lan moo tax bi ñu génn Dakar amul effectif jël nañu yëpp dugal ko Ziguinchor paa yi Ziguinchor yéen paa yi Casamance yéen ana seen i arme génne leen seen arme génne leen seen arme jàkkaarloo ñoom parce que ñu ngi tiire seen doom yi ñu ngi tiire lu tax du ñu génn Dakar am na effectif ñoo ngi xaar fii sëriñ bu fi génn wala prêtre bu fi génn di wax di ñaan njëkk dañuy dëgg sàmbay amul xaar ba suba dañu dëgg ndeyam parce que boo bu bu yëg amee ñoom ne teg eh, toog seen kër nañu toog seen kër ñu lekk li leen Macky Sall jox dañu noppi nañu tëj seen làmmiñ parce ne dañuy ñaan njëkk njëkk amu fi njëkk du fa am. nekkul am na population d'accord génn dox yëpp pale génnee Macky Sall PDM mu génn pale bi yàlla Macky Sall xamul ñu nii moom ak jabaram pour mënoo ko contrôler si lépp jabar sa jabar mënoo contrôler Sénégal yëpp Macky Sall mënoo contrôler si lépp jabar mu mën a contrôler Sénégal yëpp population sénégalaise duñu génn ñu bàyyi jigéen soo kese ñuy xeex mais li ma waxoon keroog moom laay waxaat gis ngeen lii bu naree jigéen sa rajjana ci Sénégal li ma waxoon dama koy wax parce que lu ñu bàyyi ñu rey suñu doom suñuy doom di rey suñu doom saa manifestation amee ñuy rey suñu doom ñu toog di seetaan ñu bàyyi la ngeen yéen yéen Sénégal ak ak Macky Sall moo ñëpp leen bu baax a baax c'est ce que vous méritez pourquoi le peuple sénégalais ne se lève pas c'est quoi le problème dañu seetaan li li ñu ko seetaan boo boo xasee rek bu fekkee da koy weddi li may wax na tiiroo ci kaw population Casamance moo xool ba dañoo bëgg a génne beneen dossier MFDC ñu teg ko ci ndodd Ousmane Sonko. waaw yooyu yooyu xoolal yooyu wax dof la yooyu ñoom ñoom ñoom ñoom loolu moom seen ñoom sax dof dofuñu sax yooyu moom du jàll yooyu moom ñun ñi xam nañ ko ko fi mu ne nii nañu wax booy yi nañu jóg taxaw. xam ah. a am suba ñoom la ñu soog seen garabu saytaan yooyu ñu doon toog maintenant nee na ñuy ñu waree bu te yoon yëpp bi war nañu jàkkaarloo moom ne ko ci yoon mais kon nga leen di sexal ñooy wan na loolu moo tax dañu ko nangoo wax dëgg ñu ngi xaar prêtre bu fi génn wala sëñ bu fi génn di wax dañ lay fekk sa kër yow sa njaboot yow dëgg sa ndey toog fii di rey nit ñi saa yu toog mu ngi rey mu ngi jël yat di dóor di tëj di rey yéen a ngi noppi yéen a ngi noppi kenn waxul waxu leen dara kenn ngàngul xale yi ñuy rey yëpp yéen a ngi toog ci seen ruq kenn waxul yéen a ngi ne pat ngeen bàyyi Macky Sall mu jël di dóor di tëj di rey di dal ci kaw nit fekk ay kër di di leen di leen métital di leen toroxal di teg injustice sénégalais yi yéen a ngi ne pàcc kenn waxul tey ngeen bëgg a jóg di wax ay dox bàyyi leen Cheikh Amadou Bamba bi ngeen di dugal ci seen i fenn bàyyi leen Cheikh Amadou Bamba bi ngeen di dugal ci seen i complot bàyyi leen góor gu tedd googu ngir yàlla ak yonent bi bàyyi leen ko kooku taxawaayam ak yéen seen taxawaay bokkul. taxawaay Maodo malik ak yéen seen taxawaay bokkul taxawaay maam Limaamu Laay ak seen taxawaay bokkul taxawaay El Hadji Omar ak seen taxawaay bokkul ngir yàlla ak yonent bi lillaahi wa rasuli góor ñi tedd yooyu ngir yàlla Sénégal bu tollee fii ngir ñoom la bàyyi leen ñooñu ay doctrine fii Bamba Kërën Bamba fii El Hadji Omar pititi patata ma Maodo tatata tralala tukki euh, stabilité euh, euh, jàpp non arrêtez arrêtez leen bu yomal xiyaame di ngeen layoo ak Cheikh Amadou Bamba di ngeen layoo ak Maodo Malick di ngeen layoo El Hadj Omar Foutou di ngeen layoo ak Maam Limaam Laay parce que ñoom seen taxawaay du taxawaay bi ngeen tax am arrêté fii du duñu ko nangu kenn du dox suñu suñu maayeen fii dañuy xeex xeex kenn négocié ñu tey négocié ñu ëllëg te xeex bi tant que Macky Sall mi ngi fii Sénégal du am jàmm kenn du bàyyi dañuy continuer de parce que booy yi li ma leen wax moo fi nekk rek yéen sénégalais gis ngeen ne na dafa jaaxle moom Macky Sall moom mii moo appel bi moom la du parce que amul fit jaaxle na quoi parce que la ko Moussa wax ni bu continuer di nga daanu Gambie la am Gambie la fake news fenkat lañu dañuy fen bu ñu jaaree ci dëkk Gambie Gambie seen bopp sa ñoo koy wax. oui. oui allo. oui. Grand Abba. oui yaa boy. oui abe ñaari. mbiña. i b'a ka kɔta lo di. n ka intervenir la ni la la i b'o. oui oui ci en direct. Ok, euh, ma question est que est-ce que la vidéo qui circule est, est, ou pas Quelle vidéo que je m'engage. Quelle vidéo Il paraît-il qu'il y a une conférence de presse qu'il paraît-il que Muntaga a parlé. C'est vrai ça mais, ou pas mais, mais nous, on s'en fout qu'il parle. C'est pas notre problème. Non, ah, tu demandes Non, c'est juste une question. Ouais, une question. Alors, donc, le vidéo, on l'a balancé. Nous, en tout cas, on donne notre point de vue. Quoi. Nous, on n'est pas intéressé avec une déclaration de quelconque marabout. Ce n'est pas notre problème. Nous, on ne négocie pas. Le combat, c'est se battre pour le départ de Macky Sall. Il faut que Macky Sall laisse le pays. C'est ça l'objectif. D'accord, merci. Voilà. Merci. Je voulais juste avoir ce, renseignement. Alors, euh, maintenant, Muntagaba, parce que moi, ce n'est pas, pas mon sering, ce n'est pas mon marabout. Mon mhm. qui se taise à jamais. Mhm. Qui se taise à jamais. Il n'était jamais au courant de rien. De, rien. Mhm. Il était malentendant, sourd, aveugle et muet, qui reste dans son malentendance-là, qui reste sourd, aveugle et muet. Nous, on va y aller à chaque fois. Ce système d'impérialisme ne marchera pas ce système de néocolonialisme ne marchera plus. Maintenant, vite, les Moutagala, il est dans le système. Parce qu'ils savent que maintenant, Macky et son régime, ils sont acculés. Maintenant, il veut mettre sa bouche là-dedans. Nous, on ne va pas l'écouter. De toute façon, c'est le message que je vais passer à Moutagaba, qui se met à côté. On n'est pas là à dire euh, religion ou quoi que ce soit. On s'en fout de lui maintenant. Il faut se taire à jamais. On n'a pas besoin de lui. D'accord, Moutagaba Maintenant, le président Ousmane Sonko ne va pas parler. Nous, on se focalise. Il n'y aura pas de procès. Ce procès, ça n'existe pas. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Ça, ils vont nous leurrer. Ils vont nous endormir. Il ne faut pas qu'on euh, se, laisse faire. Une chose est claire. Nous, on va, on, va se battre jusqu'au bout. C'est dit Mais on nous dira aussi notre slogan tous les intérêts français soient attaqués, que la France dégage de notre pays, parce que si Marc Toussaint se, fait des ailes, parce qu'il sait qu'il a, mis y a l'armée française là-bas. Maintenant, on va demander à l'armée française de dégager de chez nous. Nous, on va nous régler notre problème avec Macky Sall. S'il dit que euh, la, la, force reste à la loi, on va lui dire le contraire, que la force restera au peuple. Et il, restera, il, il, reste au peuple. Nous, on va se battre. Maintenant, nous, que toute la population se mobilise. Maintenant, il y a des moments qui ont perdu nos enfants. Il y a les mamans qui ont perdu le, neveux, neveu, le nièce, leurs nièces, leurs petits-enfants, leurs petits fils Que tous ces mamans-là sortent. Parce que quand on tue son enfant, on t'a tué toi aussi. Il n'y a pas raison d'être sur terre. Tant que tu ne défends pas l'âme de ton enfant, toi, tu n'as pas intérêt d'être sur terre. Il faut défendre l'âme de son enfant qu'on a tué banalement comme ça. Parce qu'ils se, se disent qu'ils ont la force, ils ont le pouvoir. Ce Dieu a le pouvoir. Le second pouvoir revient à des gens qui ont perdu leurs proches, leurs enfants, le, neveu, le, petit-fils. Maintenant, jeunesse, euh, je euh, gagne Comme il a dit le grand d'abord, avec la maman d'hier, préparez vos flèches, empoisonnez-le, faites votre lance-pierre, préparez, préparez les bidons l'huile usée là, préparez-le. Gendef def de ci si vous n'avez pas l'huile usée les de futural l'huile de palme là qu'on a à la maison nous avons tous l'huile de palme usée à la maison pas papier quoi. celui qui n'a pas l'huile de palme il n'a qu'à prendre le qualité vous chauffez bien le car et la carité là vous le chauffez très bien Vous refroidir ngeen quoi ko ça va glisser ça va nous aider de pierre à gogo maintenant tout forces de défense de sécurité que vous capturez, il faut le vulpaner. Toutes les chars que vous, vous récupérez, ces chars-là, videz l'essence dedans. Ça nous permet aussi de nous approvisionner au niveau liquide. Vous videz l'essence et vous mettez le feu sur cette voiture, quelle que soit, moto ou truc que vous récupérez. Ne vous laissez pas berner et surveillez aussi les gens qui viennent les gens qui viennent et disent tout comme ça, il faut introduire les gens parce que nous ne sommes pas tous, on ne conjugue pas tous le même verbe. Il y a des gens, des traîtres, des apatrides qui sont sur le territoire, qui sont parmi nous. Même ton frère et soeur peut te trahir. Il faut être très, très, très vigilant. Ne mangez pas leur manger. Inch'Allah, c'est ça que je voulais dire. résistant, nous résistons, résistant et désobéissant. Inch'Allah, papa. Merci. Alors. la bu ñuy téye xale di rey yéen a ngi toog seen kër kenn dëggul seen baat kenn dëggul ngeen wax te pourtant gis ngeen Macky Sall lu mu nekk di doxalee ci biir senegal gis ngeen magistrat yi ni ñu doxalee ci biir senegal les magistrats ak juges yi lépp li ñu nekk doxal ñu bëri ci ñoom ànduñu ci kenn àndu ci tey yàlla day attee yàlla du yàgg léegi policiers yi démb ñu ngi doon xeex ak bi tribunal ñëpp di ko gis police ak gendarmerie ñu ngi xeex seen biir. ñepp diko gis ki tal rew mi ba fukki xalé ak ñent dé dama ñu tek ci ñet muy 17 ama 18 ñi dé tay aji saar boobu fenkat bobu ak ñi ñen andal yalla mu ngi leen di won ni yéen ci fen ngeen nek tay ay ay ay ay yéen yéen seen biir ya a ngi xeex police ak gendarmerie ñi ngi poñalante vidéo bi di dox aduna bi yëpp di ko gis mu nek une humiliation c'est-à-dire véridique bi jënd na ba pare bu yag na jënd ci procès bi deug bi feeñ na na Ousmane Sonko du tribunal ma avocat bobu mu ne nga jël sa jëmeñ Ousmane Sonko du ñoo wuy ay tribunal yo xamna ay ñoo fa tok ay ay fenkat ay criminels des magistrats criminels des juges criminels des procureurs assassins criminels ñoo sont fofu ñoy un ñoo Macky Sall Ousmane du fa yow mi nga xam yow yaay avocat da ngay tëj ci jëmeñ du yow yaa ñu imposer wala du Ousmane Mo ñuy imposer il bougera pas de yota, parce que c'est pas à lui de décider le procès là le peuple a taché Adji Sarr fen na fi fen bi jëne ay audio waaw ku ne dama ëmb mu wasin ay audio ngeen dégg ko fi yëpp Mamour Diallo Mamour Diallo mi ngi doon def de yëpp audio yëpp suy kenn bëgg a taxaw fi naan procès ñun liggéeyanteel ñu ñun lu ñuy xeex mooy Macky Sall na joggé fi et nous avons koy troisième mandat ou le conseil constitutionnel valide valider candidature Macky Sall pour troisième mandat Nous avons koy xaar que nous avons fait. sénégalais un lay yi waxal avons mais nous leen dëgg Nous révolution Nous du ko tàmbali nga def Nous ci avons nga bàyyi Nous avons un erreur Nous ci intervention Mountaga 2021 ñëw ñaan njëkk Macky Sall mii mooy jël téléphone am woo ko yuuxu mu yebal ñaar nit ki ñëw ci si Ousmane ak euh, M2D kene ki dem ci Macky Sall Macky Sall dafa yakamte ba mu yebal motari ñi dem gàttandu sa ko nga xamne mom la Mountaga yu ni ci moom lan la Macky Sall wax est-ce que la mu waxoon respecté na ko respecté wu ko est-ce que bu joxone kilifa bi bu ko bu ko joxoon gëddëm Macky Sall du ko du doxale numu doxale ni mu taxaa lan la wax ma len amel bor bo xamne duñ la mun buñ duñ ko du bor rek mais mu taxaa bakkan rot sa loxo ngi ci biir yomal xiyaama yalla dina la laaj bakani rot yow ya tax bok nga ci lii tax bakani rot parce que bo duggalu won sa loxo ci xex bi heure yi Macky Sall du tok ci palais bi nit dañuy te deug ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañ ku fi dee juróom-ñaari mètre pérékan lañ lay laxas sa jëf ngay fekk foofu du sëriñ du kenn ay bakkan rot na ñu ngi fii fan nga mujjee jënd glace maa la yoroon ak bàkkaar bo bor boo xam ne mun ma xamul fu ma leen koy fayee doo ko mun fay parce que ay bakkan ñoo ci rot dooleel nga makisal ñaan nga njekk ñëpp bañ Ousmane xolam moko moko moo lor Ousmane ne intervenu ci ay ay ñumu bokal ñu leen bo nañ comme serigne bi ñaan na nañ ko nangul ñaanam am suñu mémorandum a ngi ni demal mémorandum bi la jox nga dem su lo pour wax nit ñi lan nga fa jëlé comme réponse ba tay bes ni ki tey waaye gis nga tamit Macky Sall mu ngi continuer di ray sénégalais yi gis nga ni Macky Sall mu ngi barricader kër Ousmane mu ngi gis nga ni Macky Sall mu ngi barricader Ngor Yoff wakam gis nga Macky Sall mu ngi daje ay kër guddi ay nervi jox leen fetel ñi rey yéen a ngi ne pat rek ah bon Macky tàmbali xeex bi la fi nekkoon amoon du am ba tey mu gis ni ci position ba mu nekkoon deux mille vingt et un ci po yoon boobu la nekk ni muy waaxu di leen woowaat pour ngeen jamaat ñoo waxtaan pour ngeen intervention ko fii conférence de presse Ousmane du fi wax bul wax te jël sa jëmeñ sa yoon nekku ci xeex bi yow toogal rek yow dañ la tooñ toogal rek dañ la tooñ tooñ Sénégalais toogal bul xeex fii bu fi conférence bi ñoom nañu dem régler seen problème bopp ñun suñu soxla mooy tey benn objectif rek lañu am xeex Macky Sall jóge fi loolu rek tant que mi ngi ci bopp réew mi du ñu arrêté xeex bi waaw kenn du wax ba ñu arrêté jeunes yi nañu organiser wu diaspora bi yéen waxal bés bu nekk ngeen jënd taal 500 euros 300 euros jàppale nañu jàppalante te yàlla tax ci xeex bii booy yi dañu soxla matériel booy yi dañu soxla jumtuwaay. pour Je lañ ci jog ñu taxaw ñu duggal ci suñu loolu moy suñu gis ngeen fi Daba oui Je suis là. yam oui wa man de Je suis là. participer suis mom Je arrêté je suis moy Je la waxon rek là. su suis dañuy kenn suis là. seen kër yi fekk leen amul amul lu ñu arrêté li fi mu toll nii Sonko war a sax di wax bu mu toog na tok di seetaan. na tok mom fi mu toog jàpp boppam bu mu wax. ay serigne yeeg y'a, yépp y'a ak ni fi fii lañ ñi ngi ray ay nit di door ba reyal génnuñ wax mu taal lañ leen gën ñu jox leen xaalis ñu gën palé bi nekk fi naan dañuy ni communiquer bu kenn arrêté nit ñi nekk si diaspora bi dañ bayyi nit ñi ñi villageurs yi nangam. Moussa Fall la mi def dama bëgg a participer nit ñi dugg ci biir affaire yi bu mu lay buñ ko nangu nañ nañ nañ nañ dal suñu xel nak 2021 lañu nax bi leen doo ko nax ñaar yoon dañ waxante dëgg ndax nañu ñaari yoon ñu di bëgg fee di këddi tay di keej te yow justice bu fa demee tamit mun na wax a wax buñ ko waxoon ne ko dañ lay àtte normal dañ koy nax Macky Sall dañ ñuy nax waaw justice boo xam ne respecté bi benn akam du ci procès Mame Mbaye Niang du ci du ci Adji Sarr du ci enquête préliminaire ma ma euh, juge bi respecté wul dara du benn akku bu ñu respecté plainte yi mu dugal yëpp yëpp kenn respecté wu ko ba pare avocat di naan way na Ousmane ñëw am na preuve ban preuve ay doomaraam ngeen yéen. avocat bi jërë avocat bi di wax naan ne Ousmane dem moom da waay dañ ko boo demee si affaire la bokk moom it gis nga Sonko ñi ko wër nag xoolaat bu baax bu baax li ma la ñuy wax Sonko ñi ko wër ñu li bëri ay koromp lañ ay ay ay conférence de presse ñoom ñoo war a lijjanti xaalis génn si xaalis bi jox xale ñuy lekk parce que dafa war a génn xaalis jox nit ñuy lekk waaye nekk bi di wax di man daal damaa décourager quoi. ok d'accord. comment def ngeen révolution bi fi mu wax leen ko deux erreur bu mat mu coûté ñu cher Tay Ousmane tay li muy dund nii tey bu tay nekkon 2021, mille vingt et un Ousmane du du du du accepter euh, euh, euh, li Seigne Mountaga ñaan parce que tay lu muy dund noonu yëpp tey mba gëm respecter kilifa diiné yi. ak euh, euh, ormal kilifa diine moo ko jural lu mu dund nii tey mu ngi koy regretter bu baax mais sénégalais yi tamit ñu ngi koy regretter parce que gannaaw bu ñu ko nangulee loolu ci la Macky Sall dem wuti doole wuti ay armes ay fetal ñëw taxu di dëw dënam li fi amoon dootu fi amati mu àndi ay nervis jox leen arme jox leen lépp ñu ngi rey sénégalais tey waxon na fi boy bu len arrière muy erreur erreur fatale boobu rek la def 2021 ñi delowat et un xex bi fi tégal ko ci suuf mané la boo ko tégué ci seen kër yi lañ leen di fekk te la ma leen wax mo amoon de révolution kenn du ko yëkëti arrière bi yëkëti nañu xex bi na ngeen xamné ha bo leen arrêté rek seen bakkan ngeen tay la ñom xam nañu lépp gis nañu bo leen arrêté rek seen bakkan fi mom xex la rebe makissal daanu rek lolu rek moy reccel ñëpp. mooy may Sénégal jàmm ñëpp nekk ci dal ñu toog tey suñu réew defaraat ko fii amul arrêt boo leen arrêté rek di ngeen seen bakkan ngeen tayle wallahi wal azim du gis ngeen nervis yi ñëpp réer nañ ñuy toog ci plateau di wax ñoom ñëpp ñu ngi ne muut tey boo leen arrêté boo leen bàyyee xeex wallahi daa ngeen saam seen bakkan dana leen rëbaat fekkaat leen seen kër dana leen rey yee ñëpp fii xeex ba Macky Sall daanu rek mooy am ñëpp rëccal seen bakkan nekk nag loolu rek moo fi ne. o leneen waaw maa ngi nuyoo man tamit. waay ma ni. Mhm. gis nga li nga wax. Mhm. dëgg la barki Demba Ndiaye la ñuy wax ni dina am ñoo xam ni dinañu def tout pour gis ko na bàyyi xel ci ñi nga xam ni ñoom lay recevoir bu mu recevoir gis nga man tey bu ma nekkoon place am du ma recevoir mindeef mindeef du ma ko recevoir sama ay con ñi nga xam ne ay homme de confiance ñoom lay recevoir mais du ma recevoir keneen ndax li nekk ci réew mi métti. ñun ñëpp àndandoo di ko jooy guddi ak bëccëg ñu am ci sunu njaboot am ci sunuy mag am ci sunuy rakk am ci sunuy doom am ci sunu lépp ñu jël leen di leen rey ak bëccëg suba ak ngoon Sénégal yëpp tekki seen bët kilifa yëpp tekki seen bët bu nu amee ku nuy waxal nanu dem wax ak moom moom mu arrêté li muy def yomb na yomb na parce que as góor doo ko teg yenn yi tey Ousmane li ka teg dal yëpp li mu gentil moo ko ko dañ ko fekk ci bëggam Sénégal ñu jël ko mu jël loolu utiliser ko utiliser ko ndax tey place bi nga xam ne tey fi la Ousmane toog bu fekkoon ni tey jikkoy Macky Sall la yore amuñu fi tut dem taxaw di wax ak moom duñ ko def waaye comme xam nañ ni dafa nekk nit koo xam ni dafa gentil moo tax ñuy jéem a dem di am lu ñuy wax ak lu dul ki dem waññaay Mame Makhtar Gueye dafa génn bi ñuy wax waxu waxtaan tamuñu tamuñu ñoom waa Pastef demuñu xam nga lu mu wax. Hmm. moom benn ñebe ci cin la lii la wax benn ñebe ci cin na waa boo waaw maam Makhtar Boye benn benn ci cin nañu xool ñoom ñëpp ay doomaram la. waaw ñoom ñëpp. mu ne Ousmane benn ñebe ci cin la. waaw d'accord benn ñebe ci cin du yàq dara ci waxtaan bi. ok kon ndax gis nga gis nga tey boo gisee xeex bi ak si fii dara indiwu ko lu dul dañu yaakaaroon ni complot la bu nu def boo xam ni ñu yaakaaroon ni. dañuy ñëw daaneel ko daaneel bu yomb lii la ñu yaakaaroon. dëgg la réew bu méttee dañ koy toog di ko waxtaanee mais dafa am spécial yoo xam ne ñoo koy def ci ay garantie yu wóor ñoo koy def mais ñii ñii xaw ma kan la ci de xaw ma kan la ci mais lu mu leen gën a moytu nag te bu mu recevoir kenn information boobu moo war na ko jot suñ ko lii mu daj dëgg lii mu daj yëpp ñëpp di ci teg seen bët ñuy rey doomu jàmbur yi ku ci nekk sa mbokk di ci addina bi yëpp di ko waxtaane ñëpp noppi ci ñu toog ba léegi ñu jaaxle mu yónni leen pour ñu régler ko loolu piège la piège la nan dem wax ak moom mu tëyee rayam bi muy rey ak bundu xataal bi muy bundu xataal ak sonal ji mu sonal sénégalais yi nguuram jeex na neuf mois moo ko ci dekkee na àggale bàyyi ki ñu organiser élection yi aji saar ñu mu tekk ci suuf coow li jeex li bu ko defee dëkk bi yomb ah ñëpp a yomb mais ñëpp a sonn ñëpp a fatigué ñëpp a sonn même ku daawul dara wax sax ci ci ci réseaux sociaux yi yaa ngi commencé di wax ni yëkkati yëkkati sa kàddu ci kaw parce que ñëpp a jaaxle parce que Sénégalais mosuñu dund lii mosuñu ko dund nga jël nguur accaparé ko téye ko nga ni ku nekk mën na falu ba mu kii pour lan. ah pour lan du ma recevoir kenn ndax ñoom ñi nga ñoom ñi nga xam ne ñoo koy pour ñu recevoir pour ñoom ñëpp xam nañ ko quinze ans ku ko liggéey fenn ñu si xam moom teraanga juróomi at mu nekk ka ci ci ci ci ci ci ci ci ci affaire politique bi ñu xam ko ki nga xam ne dafay tooñ nanu téye loxoom pourquoi mënuñu wax Macky Sall yaa tooñ pourquoi loolu na arrêté li muy def nanu bàyyi rey bi nanu bàyyi rey bi nan bàyyi bundu xataal bi dégg nga lii mooy dëgg bu fekkee ni dañu bëgg rek ji affaire bi nan ni ka bàyyi li ngay def nanu arrêté ray bi mhm. policiers yi nanu dem dem ci caserne yi na sa sa sa sa nguur ka joxal élection yi keneen mu organiser ka jox leen xale yi seen ay carte ku gañe jël ku gañe jël Sénégal yëpp kanam coow li jeex ah affaire Adji Sarr bi ñu jël Adji Sarr denc ka ci kaso bi ndax erreur la Adji Sarr deli na pour ñu bàyyi ka ci Sénégal ndax tey problème bi am ci Sénégal yëpp yàlla xam na ni bëggatu wax nekk jigéen li ba gën a métti démb Alioune def na bi ñu doon défini ci biir tribunal bi lu gën a ñaaw loolu amul ñooñu nga xam ne ñooy dox di dox loolu gis nañu Alioune gis nañ ko. gis nañ ko ñu jël ko def ko star ah ñu dem ba ay policier di xeex ah xoolal loolu. ñu ci sa bu ñu dara seen gàcc la seen gàcc. ñu jël seen gàcc ak ak sénégalais ak ak Ousmane Sonko moo leen dal policier gendarme di ngeen xeex ba reyante di ngeen jël fetal seen biir wallahi wala azib ak la ndax tooñ baaxul mhm. tooñ baaxul man politique ma politique maanu ma waaye dama wax li nga xam ne mooy li am ndax ñëpp a ngi observé man waxante dëgg ah man waxante dëgg ah Adji Sarr nekk star man bi ma gisee waa ji naan ka Adji Sarr sa sañse bi nangam mun a gàcceel gàcceel mooy bëgg a rey parce que ñun xamuñu loolu. ay doomara xamuñu loolu benn xale bu jigéen nekk ci dëkk bi lëmbe ka ñi dee ñëpp aji saara leen rey. fay fenn ci dossier aji saar bi. nguur boo demee ba nga xam ni ba gisatoo loo xam da ngay gannaaw da ngay gannaaw du ñëpp la ñuy laal du ñëpp la laal ma ni kilifa yi nga xam dañuy dem di dox jàmm nan taxaw ni nguur gi lii lépp nañ ko dakkal dossier aji saar bi amul. teg leen ko fale policiers yi nan dellu ci caserne yi ndax sonn nañu xale yii nga xam ne dañ leen a rey te lu xam ñi rey ñen la nan leen téye nanu may sénégalais jàmm ndax ñu nekk Afrique sa nguur sa nguur léegi mu jeex eggalee sa nguur ci jàmm soo paree nga dem yow ak sa njaboot demal yow ak sa njaboot amul problème ñu réglé waat suñu Sénégal nanu jox koo xam ne mooy organiser élection yi nit ñi nan leen jox seen ay carte d'identité seen carte de vote nan leen ko jox ku gagné ku gagné ñu xam ni kii moo gagné Sénégal jëm kanam fii la coow li nekk. Mhm. nit ñi sonn nañu te nanu arrêté tooñ bi te waxante dëgg gis nga réew bu fa wax dëgg amulee nii rek lay mel nii nii lay mel. Mhm. te yàlla wallaahi ku yaakaar ni da yore sa doole di néewal doole nit yàlla rek moo yore doole ji. Mhm. yàlla kese moo yore doole gi te amaana yaa ngi xeex nit ki. te nit kooku mooy ki gën ci Sénégal nan rafetal nan rafetal nan rafetal te ragal yàlla dee gi gaaw na dund gi gàtt na addina bi amul solo <laughs> nan rafetal lépp ko mhm. jërëjëf merci merci jërëjëf jërëjëf waaw ah, moo tax ma ne jeunes yi ñi ngi rafetlu intervention bi quoi jeunes yi bu leen bàyyi xeex bi parce que boo leen ko bàyyee ñoom tey ana nervi mi ñëpp tas nañu nervi yëpp làqu nañu parce que dañuy gis ni lu mu dugal yëpp ci xar foofu pour téye sénégalais yi bu sénégalais yëngu booy jënd nañu donc moom xam na ni sëriñ sëriñ ay ay xar foofu mi nax nañ ko tàcc actuellement fu mu ne nii nañu continuer xeex bi gis nga boo leen bàyyee xeex bi wallaahi boo leen arrêté Macky Sall dafay amal doole dana dugg këroo kër dana leen arrêté dana leen tëj dinañ leen rey parce que loolu mooy problème Macky Sall Macky Sall problème mooy day rey moom day rey. lolu moy problème bi té armée Sénégal mu ngi ciy teg gendarmerie police ñom ñep am ci ay gor ñoo ñep ya des dignes gendarmes y'a des dignes policiers xoolal gendarme bi met dóor boppam bal gudom, gendarme bi jël PA dóor boppam bal pan parce que parce que néna du du dem pour pour pour rey ben sénégalais mu dóor boppam bal xool na loolu rek. guddoom gendarme bi jël PA pistolet mu dóor boppam bal xool na loolu fa lañ toll loolu yëpp keneen nit Macky Sall Marème Faye Sall ñoom ñaar la famille fay sal bii ñoom la ñoo nekk di taal réew mi ànd ci ak seen i avocat Faye Sall seen i magistrat fay sal seen i procureur fay sal seeni i juge Faye Sall and ci ak seen police fay and ci ak seen gendarme fay and ci ak seen bëgg ci and ak seen militaire mooy le général Demba Cissé fay sal bëgg jël suñu armée bi ñu desee bu ko def armée fay pour door ci kaw sénégalais duñu ko nangu boo leen arrêté xeex bi wallahi wal azim dina leen rëbb dina leen top fii mu ne nii xeex bi kenn du ko arrêté def nañ ko benn yoon 2021 mu lor ñu yëkkatiyaat nañ ko fi ngeen arrêté mën na leen bu leen arrêté ngeen arrêté ko gis ngeen lu ci am ñii arrêté nañ leen ñii tëj nañ leen kaso yëpp fekk sees na mu ngi tëj bii bu nga xam ne bii dañu ne tant que Macky Sall abalu ñu duñu arrêté xeex bi xeex bi nañ ko continuer continuer leen xeex bi ñu xool bépp muy Total Carrefour Shell lépp luy banque banque français entreprise francais société français ngeen ciblé ko magistrat yi nga xam ne ñoo toog di def di bët li tàkk ci réew mi ak juge seeni kër wut leen seen kër fu ñu dëkk ngeen xool ban heure la ñuy génn ban heure la ñuy dugg si seen i njaboot ban heure la ñuy génn ban heure la ñuy dugg si ñoom seen kër fan la nekk ak ñi fa nekk. responsable APR yi tamit noonu la benn bokk yaakaar noonu ñi toog ci plateau yi di wax télé yi bu leen bàyyi cest xeex bi amul képp ku doomaraam rek nañ ko topp topp leen ko.

yaa ngi reculer pour sa pour pour pour yaa ngi dàq sa jàmm sa ay ngay nekk di rëbb Macky Sall fu mu tog nii position de faiblesse la am parce que jàpp na ni moom bu gaa yi jógee bu ñuy rey dañuy arrière waxoon naa leen ko fu bu yàgg nee naa leen rey yu mu tàmbali nii mooy bu ñuy jegee rek te euh, élection yi rek bu pour ça bu gaa yi ragal mu imposer mais dem na ba xam ne sénégalais du ñu reculer du ñu ragal te bés bu ngaa ngay fii troisième mandat fii bu keroogee dina xam ak conseil constitutionnel ñi ngi xaar ba ñu valider kër mag ñoom ñëpp seen kër yi dañ leen di topp jéem leen wut seen adresse conseil constitutionnel yéen ñëpp fii Macky Sall amul droit fii pour troisième mandat fii te sëriñ si yi ngeen tëj seen jëmeñ loolu moo fi am yéen moomu leen sénégalais yi yëlufu leen sénégalais moomu leen ñu ñun ñëpp yàlla moo ñu sàkk ku fi dee ak sa bàmmel sa liggéey nga yóbbu ko bu leen fàtt ñi mënu leen téye sénégalais di leen jaay Macky Sall di leen tayle mu leen di Macky Sall di len jox ay mallette ngeen di dund ci deretu sénégalais yi duñ ko dangu fi kenn du fi négocier y' a pas à négocier les jeunes là wut len seni i flèche li ma leen wax ngeen déglu ma fii bu baax wut len sen flèche ku ci nak bo amé sa 30 30 flèche barre de flèche 30 wala 50 barre de flèche mais dem len jël fer 6 ngeen di jël ngeen jël mël ngeen daggati ko daggati ko defal ko be mu rafet ngeen takku ko ci bande flèche flèche mais da nga leen di coach da nga leen da ngay posté wu combattant da ngay posté wu yor ba jekku ko téygal ndem flèche xeex bi la Oui, euh, d'abord, Viernala. Juste euh, petite euh, participation, Rek. Euh, je ne sais mais le frère de Victorine a été remplacé par Mustapha Fala, hein, mon juge. Oui, Mustafa Fala. Ok voilà voilà donc juste pour que nga xam lolu noonu donc instant yi faux procès bi ci bopam kep ku sa nday liggéey mom do jël dossier bi mhm. instant bii nii les jeunes ne doivent pas reculer parce que bis bo len reculer Macky Sall dina len rafler guddeeg beuk suba ngone da fay gën defaru te su dalé sañu kaw moy c'est fini. c'est fini hein? nga dem na ci forum euh, forum affaire numérique bobu di commencer di wax ci réseaux sociaux parce que dafa bëgg a installer une dictature comme Chine nga xamante même pour accéder aux réseaux sociaux ça ce sera impossible. donc bis bu leen voilà bis bu leen dugalee ci loolu moom mooy le moom mooy c'est fini moom. Et mhm. bii nii il ne faut pas reculer Khala TV mi dougal, dugal ba ay vidéo pour stratégie bi nga xamante ne moo ñuy may ñu gagné dugal na vidéo bu mucc bi oh mhm. il faut suivre cette vidéo ba pare appliquer ko. waaw Khala TV. instant yi nii. waaw voilà Khala TV. Mh mh. Dou gwen eh, nou, pou nou tef nye strategi yon, yon mwen yon, mwen yon, mwen yon tak ni ger bi ger, ensan mhm. yon, nou ganyekon. Dek nou lè lè. Mè sè. Donc, yon nou fò pa relâche. Wè. Wè la, yon nou fò pa kon se relâche, paske si nou, si nou ton ger re, maki sa, si nou dikwa te re dou bak. Non, lè lè kwa. Mh mh. waaw mhm. du comme ñom capable nañ di jël ay ambulance di ci dugg di camoufler wu ñi ñi ñi xam leen ni de toute façon ñi ay wuyu lañu duñu ay góor. non ambulance ben ambulance bu mu jege. ambulance bu leen jéem a jege rek leen ko. voilà ambulance auto civil amatul léegi. ambulance du ñoom waa santé bi ñoom ñoom dof la ba ñu dugg foofu. ambulance bu la jege taal leen. mais instant bii nii indi nañu maa ngi nekk nii di seetaan en direct Sénégal set seen blindé lu daaw boobu bii nii moom ku ko jékku ba taal ko rek di ngeen am jàmm. waaw. waaw blindé bii moom ku ko jékku ba taal ko rek dinañu am que boobu ba tey ñu ngi nekk di di di def seen aller retour te ngeen moytu journaliste yi journaliste yi ay faux type lañu. ñoom ñëpp ay traître la ay buur jadeek ak euh, euh, Sénégal xaw ma seen ligne ak ay kii télé jaaru télé journage vidéo yi YouTube yi yëpp ay doomaraam lañu quoi ay ay ay film ñoom ñooy dem di filmer nit ñi dem di toog seen plateau yi di fenn quoi ñoom la

Eh, Ngagne Demba maître Ngagne Demba te nekk Pastef mu ni waaw comme quoi ni frère am ci boppam moom moo nekk di leen attaqué donc kooku noonu da ngeen kaa war a téegal mi ngi koy mi ngi utiliser compte Facebook am Anita ils sont allés signaler son son son Facebook. ñun il se fait passer comme comme moom il se fait passer pour une femme il faut que ñu lijjanti ndayam comme ça moom mu tëj gàttam. Mhm. loolu la yàlla ñu yàlla defal jàmm te nam yàlla instant bi il faut pas que ñu teggi tànk benn affaire am na moom gis nga suñu suñu yox yoxee bu dugg ci tabaski bi rek xamal leen ni fi fi fini parce que dañuy gis weer loolu la de

instant a laaj ñu laajuñu benn intervention jullit bi ñu ñu jënti kër gi ñu ñu jënti Sénégal ba mu ni continuer karaj voilà instant yi na mu ñoom nañu continuer toogaat ci seen ruq ñu nekkoon rek voilà pendant que le peuple est en train de souffrir ñoom ñëpp ñu gis li ñu xam parce que ñoom ñëpp xam nañ bu baax a baax li li taw ñoom ñëpp ils ont des des smartphones dernier cri ñoom ñëpp xam nañ bu baax mais ku ci nekk comme xaalis ñoom daf leen a jiital ñu nit ñoo war a xam suñu bopp Ok. Euh, Sénégal 7. Il ne faut pas attendre. Voilà. D'accord. Ok. Amin, amin. Euh, Sénégal 7, est-ce que tu peux m'envoyer cette information-là Comment pirater euh, euh, euh, euh un drone Sénégal 7, ah, YouTube, okay. ok wa mhm. mais tamit euh, maa ngi lay yónnee euh, maa ngi lay yónnee benn euh, nu ko tuddee sax naka ngay def tamit pour filmer sans pour autant gars yi localiser sa téléphone maa ngi la koy yónnee léegi nii ci whatsapp bi dégg nga. ok ok. Mm. yónnee ma ko alors fi mu ne nii aéroport aéroport bi cible la RTS cible la aéroport Yoff bi boo ñu waa secteur Yoff il faut ngeen gérer ko jam il faut ñu sét ni koy c'est-à-dire xex bi duñ fi bàyyi amul tabaski amul korité gis ngeen tabaski ah non yàlla gis na lii xew Sénégal jàmba yàlla lu métti yàlla sonalul jaam bi yàlla sàkkul jaam pour di toroxal wala di ko sonal ko mu ñu ci pour ko mu ñu bi ñu bu sell bu l'islam yàlla tawagul nootul kenn yàlla te nootul benn jàmm yàlla tegul benn jàmm lu mu mënul yàlla te gis na conditions yi am Sénégal bu ñu kenn wax ay waxu xaru tabaski fii bu ñu kenn wax tabaski fii tabaski ñu tey tabaski ñu ëllëg suñu tabaski mooy Macky Sall mii na fi jóge mooy tabaski bi nit da ngay am jom nit da ngay am fulla nit da ngay am fayda nit da ngay am jom am fulla am fayda nit ki soo amulee jom amuloo fulla amuloo fayda doo jaamu yàlla yàlla nangu ko yàlla bëggul ku ñàkk fulla ku ñàkk fayda ak ku ñàkk jom loolu mooy dëgg xeexu xeex bi ñuy xeex ni dañ koy xeexal xeex l'islam mu ngi ci biir parce que ki fi toog franc-maçon la ku fi toog franc-maçon la bu leen fàtte ni fii la jël suñu avion dem di xeex contre yonent yàlla Mohamed France Charlie di marche contre je suis Charlie Macky Sall franc-maçon la gëmul diine l'islam ñu mu àndal gëmuñu diine l'islam ay góor jigéen lañu ay formation ay lesbienne ñooñu ku leen xeex bésu tabaski sax yàlla jox la tiyaabo xeex bi dañuy jixaat il faut ngeen ubbi seen bopp yi seen xel ubbi leen seen bopp yi ak seen xel yi xeex bi li ci laxasu dafa bëre te loolu moo salte il faut ñu toog ñi xeex ñun temps yi ñu am yëpp ñu ngi koy teg di ko exploiter di xeex la ñuy wax yàlla ma ngi ñuy dëgg fii ku fi dee yow ak sa bàmmeel ku fi dee ak sa bàmmeel sëriñ munu ci dara yonent munu ci dara wàllu munu ci dara xutbu jamal munu ci dara tous fii ku fi dee ak sa bàmmeel juróom-ñaari mètre percal bu dee jullit nga ak sa liggéey bu dee catholique nga sa costume lañ lay dóore wala sa ndoket ak sa liggéey rek nga yóbbu ko foofu sa bàmmeel li nga liggéey nga fay fekk bu kere nga yomal xiyam benn sëriñ amul a taxaw ci kanam yàlla naan intervention du sëriñ du xutbu jamal du yonent du waliwu kenn la ko yàlla jox cent prophètes chaque fois 124 000 prophètes yi yàlla sàkk kenn la ko ci jox mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek la ko jox grade galon boobu te moom pour mu mun a ñaan intervention dafay fekk jaam bi liggéey li moom mu mun a intervenir ku fi liggéeyul intervention yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bu nax doo dëgg mukk ñu ne la yàlla nee na yonent bi nee na alquran nee na xadis nee na sama maam nee na sama maam sama maam nee na rek ngay dëgg ñi jaay la sant mbakke walla si wala laay sama maam nee rek ngay dëgg seen maam yooyu bu dee yoomal xiyaama du ñu gisee ak seen maam yi sax parce que seen maam yi taxawaay bu ñu taxaw ak ñoom taxawaay bu ñu am bokkul seen maam yi dañoo dëddu àdduna loolu Salam alaykoum..! Wa alaykoum salam..! allo. waaw so dom la mo wax ak waaw acca na wax. très bien xalé nañu wax même les petits enfants là..! jox leen xalé yëkëti seen baat am nañu ci réew mi très bien. waaw alhamdulilah. aha ñu ngi lay maam Khady. ah maam Khady ah très bien ça maam Khady bisimilah acca bokk ñu ngi lay déglu Macky Sall déglul maam Khady. Macky Sall. Mhm. Macky Sall daa niil. Mhm. Sonko mooy lan ngay wax Macky Sall mi tek di ray xale yi Macky Sall mi ngi ray xale bu am fukki at ak juróom lan ngay wax Macky Sall muy nak di ray xale yi xale yi am fukki at ak juróom sax Macky Sall fukki at ak ñaar Macky Sall mu ngi len di ray waaw lan ngay wax xale lan ngay wax Macky Sall. Macky Sall da won Mhm Mhm naa huit ans waaye d'accord ma ak moom. 8 ans nga ama. mais d'accordul ak ni 8 ans la am mais na ñetti at d'accordul ak Macky lu mu mhm. vive Sonko vive le Sénégal. merci vive Sonko vive le Sénégal Xalé bi la bëgg ak dëgg ci Macky Sall rek kon ngeen yi ngi seen xel Sénégal merci au revoir. merci.

xaw inspecteur de police la commissaire de police ñu poñe ko police gendarmerie di vidéo bi mu ngi circulé fu ne fu ne circulé ngeen xam ne ñoom ci dëgg la hein? juge bi daw lu muy daw ci ci dossier ay fen dossier boo xam ne ay fen la dañuy remplacer juge pour la ñuy remplacer juge lu tax kenn du ci ànd ci seen ak seen i kàcc du ci déglu déglu leen Macky Sall xaar leen ngeen xool Macky Sall mi doon taxaw fii ba muy wut ci jamonoy gis ngeen jikko wut kat bokk la ak euh, bu amee ba pare barke salaatul fatiha billahi danañu wax be xubu daas dañuy continuer di wax be xubu daas ma leen ko fii waaw ngeen déglu euh, euh, ñi déglu tuuti Juan hmm. Branco bu leen fàtte ni Juan Branco

ku ci nekk am nga li nga xam ne war nga ko mën a def waaye ñu ngi toog fii di wax suba ngoon guddi bëccëg di xeex réew mi waruñu ko bàyyi ci loxo Macky Sall di wax naa leen na ngeen déglu fii Macky Sall. taxaw manifester. su yeboo ñu jàpp nit ñi. su yeboo ñu toj leen. su yeboo ñu roy leen. danañu

danañu jiitu ñun ëllëg danaa dem réunion gannaaw ak société civile li wóor mooy le peuple sénégalais sera dans la ñoom Macky de ba muy wut ba mu nekkee candidat nee na Abdoulaye peuple Sénégal dana wacc ci tali ci manifester danañ wacc ci tali yi danañu xex bu yeboo ñi tej leen bu yeboo ñi arrêté leen ñom danañu xeex du ñu nangu kenn ku confisquer ay droits sénégalais mom Macky Sall moo fa nek diko wax Macky Sall dégg ngeen tey Macky Sall bobu Macky Sall boobu la doon wut bam ko joté néna kenn du fi manifester kenn du fi wax kenn du fi manifester. euh kenn du fi wax ñun doon wàcc si mbedd mi da leen wax mu taxaw manifesté si yoboo ñu jàpp nit ñi yoboo ñu toj leen yoboo ñu roy leen bi sax loolu si tax pare dana ñu jiitu ñun ëllëg danaa dem réunion benno ak société civile li wóor mooy le peuple sénégalais sera dans la rue et n'acceptera pas cette forfaiture nous sommes prêts à faire le peuple sénégalais n'acceptera cette forfaiture d'Abdoulaye Wade et le peuple fera face Tay Macky Sall boobu moo toog fi tay am benen taxaway. nañu def. nañu Assalamu asalaamaaleykum européen d'alors asalaamaaleykum fii lay ne nañu dem de Macky dañ leen ko tegal dañ leen tegal lépp gars dañ leen tegal lépp gars déglu déglu leen Macky. déglu dañ déglu nee man maam nee leen ma kii du Macky man loolu dong laa bëgg parce que man gëm naa ne kii du Macky. nee na Sangalkam li ngeen di def ñu ngi leen di encouragé ngeen continuer di ko def. fan ci weeru mai ci la aw askan génnoon ca kam ah, dem nag euh, song yi li nga xam ni moom mooy brigade gendarmerie ba euh, bokku ñu naan Malick Ba ñàkk ci bakkanam. le corps de Malick Ba est évacué à l'hôpital l'homme

nee na sangal kam li ngeen di def ñu ngi leen di ngeen continuer di def. aw yaram ji min naa ko de. <laughs> am na ñu bañoon teeru boobu am mooy waa nguur gi dem nañu sax jël ab bind ko ne benn nit warul am benn manifestation ci jaay xam nga loolu doy waar ak ñu ne nag ñoom nañu def ndànk nañu tey d' administration bi fi nekkal ak parti nguur gi lañ fi war a nekk ak réew mi kon nañu xool bu baax seen li muy bind parce que Sénégal tolloo duñ fi ñu xokkatal ay nit ak leen tere seen droit kenn du ko nangu su fekkee ne du jaar yoon la ñun du ñu jaar yoon waaye nag loo xam ne tegul yoon ñu ko faale duñ ko respecté moo tax ba ñu ñëwee alkaati yi taxaw naan du ñu ñaata ñaari oto yi ko côté nit ñi dañ leen fël romb leen tam te parce que ñun tooñu

doomu adama ak sénégalais té mom bi ngi actuellement mu ngi salfaañe ak yelef doomu adama ak sénégalais mom Macky Sall ne duñu nangu yi ah di jël alkati di len door ci Sénégal mais Macky Sall mu ngi jël alkati jël na gendarmerie police def ko police Faisal mom Macky Sall tay jël ay nervi duggal ci police ak gendarmerie dem jël 45 milliards jënd arme ñoo jox ko ay nervi jël ay xeetam ber leen fële téye ñeneen ñi di leen rey di leen doon moom Macky nee na préfet ak gouverneur yi duñ duñu nangu administration bi di nekk fi benn parti mais administration bi nekk fi tey administration Faye la c' des gouverneurs de la famille Faysal, des préfets et sous-préfets de la famille Faye mu jël administration bi def ko administration tukuleur ethniser administration bi moom Macky tey la mu doon bañ moom la nekk di def nii tey pour ngeen xam ban xeetu nit moo fi nekk manifestation kenn du nag manifester way nee na dañ dem fële ne kenn duñ manifester lu doy tey moom mi ngi nii tey opposition bu xooj kenn du manifester donc gis ngeen façon xeetu nit kii kii baaxul ci réew kii baaxul ci réew kii baaxul ci réew ñi ànd ak ñoom baaxuñu ci réew mi loolu mooy dëgg nañu dem ci Macky Sall ji ko bu amee rek nga xam ko waaw buy am na nga koy xam nee na taal bu yàlla taal te sànni ci matt moo gën fay ko woy woy ci jamono yu Ablaye Wade moom la yàlla taal mu tàkk Ablaye Wade bugg koo fay moom mu ne Ablaye Wade taal bi yàlla taal sànni ci mat fay ko mais jamono gu ñu toll nii Ousmane Sonko la yàlla taal moom Macky Sall du ko mun a fay. li gën moy na ci sànni matt mu tak rek bu fekke gëm na yalla mais malheureusement mom gëmul yalla parce que franc-maçon la franc-maçon du gëmul yalla franc-maçon la mom dafa contre diine l'islam contre yoonu ci Mohammed alayhi wa sallam jël suñu avion dem nekk Charlie gëmul diine l'islam du julit. te yalla mu ngi koy wan ni yow do julit parce que dem na grande mosquée ci jamono Aliou Sall bu moom bu mu sàccee suñu six mille milliards moom Macky Sall moom moo nekk ci bopp bi ànd ci ak rakam ñi sàcc suñu six mille milliards ba mu demee ci julli bi korité lan la waxoon que man sama man Macky tant que maa ngi fii sama nguur du lu méngoo ak dëgg tant maa ngi fi man Macky Sall sama nguur du doxal lu méngoo ak dëgg ci jumaa ji de yàlla ma ngi koy won ni yow sa làmmiñ bii la nga bëgg a wax gëmuloo ko la nekk sa xel gëmuloo ko li nga bëgg a gëmuloo Sénégalais yi du dëgg fenkat kat naa fekk nga moo tax ba mu jënee pour wax tant que maa ngi fii pour jéem a wax gëmuloo Sénégalais di justice sama nguur dina nekk ci justice mu ne tant que maa ngi fii sama nguur du def lépp lu méngoo ak lu yoon wax yàlla ala ëpp doole de donc sénégalais il faut ngeen xam fan lañu jëm fan la xeex bi képp ku arrêté yaa ngi samp satan yaa ngi dooleel na yaa ngi dooleel seytaane ci réew mi tey xale yëpp jommi nañu xale ñi ngi dey ci géej xale yaa ngi dey ci jéeri yi ñi ngi tey sénégalais def leen ay góor jigéen ci prison yi ci dëkku naar yi ñi ngi jaay sénégalais yi def leen jaam ci dëkku naar yi ku ñu ko teg mooy yorin bu bon Macky Sall incompétence yore réew fukki at ak ñaar amuloo lenn li ngay def lu dul di créer ay cadavre ay rey ay assassin di créer ay nervir amuloo lenn ben xam-xam def jël suñu police suñu gendarmerie taxat taxate ko Avec institution di deugal fen ak sos ak il ak ak la Sénégal tollu amuloo leneen loy def ala réew mi jël suñu dem dooleel tubaab jël pétrole Sénégal yëpp ak alal géej yëpp tay la ko Union européenne jox ko tubaab yi fukki at ak ñaar teg ci nag di faat bakkan loolu mooy suma problème rey dóor bal ban mu daal ñëpp gis sëriñ si gis kenn waxul moo tax les jeunes la nañu jóg xeex yàlla mi ngi ak ñun wallahi wal azim yàlla mu ngi ak ñun ñun ñoo yore doole ji nañu jog xex ku nek na nga jóg taxaw takk sa ndig xex la de jihad la def ni wallahi Imam ndaw xex na bamu dem bamu dugg ci bàmmel imam ndaw dafa xex bamu dugg ci bàmmel ki ko kan la Macky Sall moo Sidi lamignas jihad na bamu dugg ci bàmmel ku ko kan moko ray Bruno Bruno jata xex na bamu dugg

ay flèche yomb na dem leen ngeen jënd barre fer six fer de six barre ngeen daggati ko daggati ko ay parti weñ bi na day nii rek ngeen daf ko ba mu ñaw ngeen ngeen ngeen jël ngeen daggati ko ni cak cak cak cak cak weñ bu ndaw nii rek ngeen def ay flèche jël bi tak def ko ci bant ngeen dem wuti buum buum bu dëgër ngeen taw yi bant bi arc bi bant bi ba mu kii ngeen takk ko flèche la ko téegal ndeem mu abal la il faut xeex day am stratégie flèche surtout ñi muy ku ñu la Vous yi une dëkk da nga ni mel do leen leen ci leen wut leen seen flèche alta flècheol ñi ning casamas du al flècheol préparé jijaaji Vous ku une jëna lu ma ji jow man la ko moy dëgg cocktail moo la taf flèche ñun léew da yeewu askan liggéeyantewuñu ñu leen quoi seen conférence de presse ñun objectif la am le combat pour le départ de Macky Sall il faut que Macky Sall jóge fi sénégalais bu ñu bëggee am jàmm ñun ñëpp ñu jotaat suñu réew mën a taxaw tabaxaat suñu réew il faut que Macky Sall jóge fi mais tant que Macky Sall jógewul fii ci bopp réew mi fii jàmm du am Sénégal dëgg du am Sénégal Sénégal du jëm kanam

loolu mooy dëgg nit ku baax loolu lay ñaan mais yéen a toog seen kër ne pat mu am ay doomu xaraam ñi nekk ci télé naan bu ñu bayee xale yi jënd day xeex bu leen xeex ñoom ñi nekk journaliste doomu xaraam yi fii dañuy xeex mu mu bi dañ koy dog kenn du fi arrière kenn du arrière parce que boo fi arrière li gën a garaaw la di teg ngeen xam ko ñeen ñëpp laa wax fukki régions ak ñeent xeex bi déclenché na du ñu arrêté politiciens yi. yeewi askan bi ñi tok fi di jéem conférence de presse bëgg ñu jéem le gëm le fi ay pay ay jam ñom Khalifa Sall ñom Barth ay doomaraam lañu kenn du fi xex kenn du fi arrêté kenn ñun liggéeytewu ñu leen quoi ndaw ñi jeunesse bi seen avenir la bu leen nangu politicien classique yi politiciens yoo xam ne tekkiwuñu dara nekk fi depuis 1960 ñoo fi nekk yore Sénégal di leen note di leen nelawal ci ay conférence ci ay débat ci ay jéem leen jaay ay ay expliqué intellectuel benn ñoom rek ñoo yore kër yi baax yi ñoom la oto yu baax yi ñoom la milliardaires yi ñoom la te Sénégalais teg leen ay xar comme ay xaj di leen maltraité bu leen déglu fi benn politicien bu leen déglu benn politicien ñoom ñëpp seen intérêt la ñu seen doom yëpp ñu ngi jàng ci école yi mag yi université yi mag ci kaw ci Europe bu ñu seen jabari bu ñu buggee wasin ci hôpital tubaab bi la ñuy dem wasin Europe bu ñu feebaree ñoom ñëpp foofu la ñu faju léegi bu fekkoon ñoom ñëpp ñoo ñu faju ku jëne ku jabaram dem di wasin ñu téegal ndey mu ñibbisi jëkkër ci ministre dem ñu téegal ndey mu ñibbisi danañu respecté sénégalais yi parce que il faut que ñuy saaga seen ndey léegi foofu lañu jëm parce que muñ nañu muñ muñ muñ xam ne ñu ñu ko sëqal ay doomaraam lañ du ñu ay nit ñu ñu ko sëqal ay doomaraam ngeen doo leen ay nit fii kenn du arrêté xeex bi boo leen ko arrêté c'est trop tard so len arrêté rek Macky Sall daf len di rey dana len rey yéen ñëpp comme ay xat man ma len wax li arrêté amul de nañu xex ba mu daanu maintenir len xex bi gis ngeen ay ñom Shell Total ni entreprise tuba bi ni ñom seen kër yi armée française ni ak ni ñu fi nekk ni kër gi auto kenn warul circuler ben boutique warul tijji bu leen nangu même petit commerçant sénégalais bu waru tijji réew mi nañ ko bloqué il faut que Macky Sall dem bu ñu ko bloquer deux jours Macky Sall dem bu ñu xeexee wallahi jeunes yi billahi sama diggante li ma leen wax nii Yagna l'en leen ko wax ñu xeex surtout yéen waa Casamance den lay waxal yéen a ngi ne pat xale ñi ngi xeex de mais ak jigéen ñi ñi ngi jënd di xeex keroog am na jaan bu ñu fa téye jaan bu ñëw ci kër Ousmane la ñu yónni jaan ci kër Ousmane jaan un serpent ñu téye ko tap kan moo ko téye jigéen ah way jaan bi ñëw par pour dugg mu ne ko foo jëm arrêt jaan bi taxaw ñu ne ko tép jigéen la de mais yéen góor ñi yéen a ngi toog.

mais bu dee lël bu mag la fu tampof ngeen dem ñaw la ay caaya yoo xam ne quatre kilomètres la caaya bi di def façon galaaj bu ne ngeen takk ko yore seen jaasi seen paaka waa ji nekk fa la yore bëjjëram di wëy ngeen di wëy di fecc di jam seen bopp di jaay yéen ay góor ngeen di wane yéen ay góor ngeen Macky yone fofu jigen jigéen yone ay nit ñoo di xeexal seen doom yeen nga toog seen kër ay jigen jigen jigen jog di xex yen góor yi pëmpatan yéen a ngi toog ñaka jom muy ji puñeri ku ni nak fang muy ji puñeri mi muy si kee kanam mu nak mi ji lako ma ku seeka ku kok si flasu ma ku jakku tik jub wurang ba tubaab man ji sen ku seekak ku ko muy man ji koko flaw ji wurang ba tubaab bolu parce que ji nafawut enya futampof jijaji kiksi chaya sanu manjimi 2 km 3 km manjijaji galusi safeta solu manka sina koke lite mwenjo ndik nganya ji bom katu sor muy kunine kunine maxal o mo bonilo kunyi e euh, kusana koke tampu do rusinelo ano ah sala kanta sanke muy le kunine jikat kunine alman keke woti musol le be kɛlɛ la ani digi dugu la a mumuru al be sini tuk kuman kɛ kuma man fo tuk tuk yarang yalla bari nin kuyango botena kuyamba ale ta chaal kun kara ni caya yemul 2 km safel be dunna al ba al bal solo muro la albe be la al la ale al dingol be il la de man safe dungi man fen dungi be la bari atol atol mun kewolti atol mun atol ku al al al ko fengon le do le bije al be daba kurtol dun ni chaya balu safel be dunna fe binol be sola al be nganya le al bal sola muro la kidol be kumala bi ibal ya inata kal jang kadin kuntu senegal je je al be siri musol musol le daba kurtol dun be kala atol kewol al be siri ku manke mama fo Où sont les hommes Toi, tu as fait le dinigol <laughs> be keloo la de i be Ousmane Sonko à ta la wallahi wal kitabi ale sa mun kinan Ousmane la kordaate yaa faale musol le yaa fa alla le la londo tiñaaro alewo nole akala londole tale ta tiñaro fa al simu hadama walling états unis albe casamas alia walling états unis alia alia fa Alie murnam alla suta avion le suta avion ol suto avion ol si si avion ol sol sati fukara so sey sa le manji yit manji tok anaw australie ji toko états unis angleterre manji bujulo manji leñu muyu mayala moyu be balle mayal e bukaan wala be pooy e suk bu lëpp boolewul muy ji lëpput lëpput muy kuni nag bu lëpputi de jaa fu gaajoro foofu moom fu le fang mu jooj man ji tintane kepp ku ñoolu pankuti e nga ekkatey jikkoliye wallahi panji ket ji finta finta elalay ji finta wot elalay panji ket waa tey ring da panji ket panku foku nif foni bañɓe kasankeno labbo eyi eh, comme muy kañanti jippur manjaji keyti muy kunina jigaji manji jaji tik jirampe jonen ko ŋajanak manji sen kuñinak manko jaw kutik e ci jonen ku si jorangas manji sen kuñinak manko jaw kutik foyna malaganam e muy ci kañant muy le kunine ju wuramba tupa bolu manji sen kusek ak man muy ju koku fulaw manji la manjujo nen singaje na sen kunyira makuja kutik aldaba kurtol wuram ali adi musolla ya city atole fano city ali taras ali si sokono albu kamalu oui waaw oui yaa ngi ci expo bi wala waaw waaw participer waaw waaw participer oui grand xolal affaire bi moom Ousmane li ngay wax man dama nekkoon pause boobu ak léegi nii mais Ousmane moom amul lu mu mën a amul lu muy wax quoi moom moom na toog mu seetaan mu tànkam conférence de leader rek ak ku mënti doon ñoom ñëpp ci gannaaw Ousmane la ñuy bootu moo tax ñu doon li ñu doon tey nañu dem xeexal seen bopp parce que ñoom ñëpp dañ ko waroon ay deux semaines ci gannaaw trois semaines ci gannaaw ñoom ñëpp dañ ko waroon maire ay moo ci génn taxaw ak Cheikh Tidiane Dieye dëggal boppam comprendre nga ak Guimar Sagna ñu leneen ñu si def ñëpp ay lâche lañ Sen compte bopp Usman tax ñu bëgg wéeru ci Ousmane Ousmane il a compris maintenant waaw parce que Pape Alé Niang daf ko daan wax bu yàgg ça fait deux ans mu naan koy tuer seul xamal loolu Ousmane tuer seul ñi la dañu bëgg wéeru sa kaw ba dem ci kaw ci sa ndodd ba dem ci kaw maintenant il a cette cette cette bataille là moom il a compris maintenant leneen li mu munti mu tax mooy booy nañ dëkk ñu taxawal seen bopp. amul ma dem te ñëw man yàgg naa leen ko Ousmane foog mu bàyyi booy ñu jël seen responsabilité boppam nañu dem xeex xeex bi reyante li ñuy reyante parce que lii yëpp Macky Sall benn entre parenthèse la woon Macky Sall doomu xaram la bàyyiwul te du bàyyi parce que dafay déglu ay féticheurs am joxaat ko date bu baax comprendre nga nañ ko ko wax attaqué dara du am le 16 mu def daanam ñu ne ko dara du am parce que Macky ci ay fétiche lay dox ay fétiche am ñoo ko nax nag. parce mhm. que alxuraanu karim ay fétiche am ko nax nii dañ ko ne jugal nga dem sans convocation sans dara jaay ko doole jël ko Sénégal kenn du yëngu. waaw ba ñu tégalee seen ndey arrière nañu de. waaw léegi nag ba ñu tégalee ndeyam mu xam ne fétiche bi luñ ko wax nag juum na instant bi panique bi moom loolu la nekk parce que nee nañ ko liñ defoon yëpp yàqu instant bi dafa juum dafa jaaxle li tax ñu mu woote wallu ci kilifa yi ñuy wax parce que petit chef yëpp dafa toj parce que yàqu na li ñu defoon yëpp yàqu na. Mhm. laal ko laal ko dara du yëngu loolu lañ ko waxoon moo taxoon mu demoon bëggoon ko këyit par force parce que doomu xaraam lañ doxuñu ci loi affaire du banditisme la ñuy def affaire du banditisme d'état la affaire de cartel la ay bandi lañ man xoolal grand gis nga yàgg naa leen ko wax di ko yàgg wax waa que bi parce que koo ci yàgg naa leen wax bu yàgg depuis deux mille dix huit deux mille dix neuf maa ngi woon fii ci cas bi dina leen dem leen ci cellule bu duggee Birtan ngeen lijjanti ay boy cellule ay waga ay ay boy yoo xamante ne yàq rek mooy seen liggéey Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum da wax dëkk boo fa demee ñëpp di yàq da ngay xool da ngay da yow ba dàq cee yàq. waaw waaw da ngay ba dàq cee yàq moo tax après defar bi di yomb. Mm-hmm. mais parce que ils ont rien compris. waaw yow affaire du ay biral ay du ay làkk français du ay toog ci télé du ay plateau du ay bàyyi leen foofu du yooyu politique phase par phase la ñun xoolal dañ ñu daan financé jamonoy Ablaye Wade town wër na alxuraanu karim xoolal grand dañ ñu daan financé ñu dem jënd ay trente sept braay ay top top dugg ci biir town bi ànd ak Wade ak grand Benson town am na bu mu mënu wax seen tur man deux mille Ablaye Wade ba mu jëlee town ba deux mille deux lañ génn kaaw lañ dugg ci kaaw bi parce que ñoom ñoo ñu ko digoon man yàgg naa ko wax fii di ko signalé gars yi parce que faw ñu am benn secteur boo xamante ni dañuy bàyyi booy di def lu leen neex mënuñu régulariser ñëpp mënuñu wax ñëpp da ngeen di doon ay ay yar ak teggin ay. kii amu fi amu fi tant que gis nga gis tant que Macky Sall mi ngi fii ak régime amul yar ak teggin. loolu moom jeex na ay yooyu Pastef ay doomu xaraam lañ gis nga ay Pastef ils sont violents ak yooyu. waaye seen dëjëw ndey ñu koy wax yéen ñëpp. waaw tey da baax day saaga de tey. tontu non yàlla mi sàkk ñëpp sax yàlla mi sàkk ñëpp sax deful ñëpp yem. yow mënoo am sa partir nga bëgg ñëpp dox ci say conditions xam nga ñii faw ñu doon ñii faw ñu yor jikkoy lundi ñii yor ci jikkoy mardi ñii yor jikkoy mercredi ñii yor ci jikkoy jeudi mais yow kilifa gi yaa yor ci jikkoy jikkoy du lundi ba au dimanche nga xam ne yow di nga mën a di nga xam secteur yëpp ku ci nekk nooy wax ak moom. en général Ousmane bu defee conférence de presse ku ci nekk li nga bëgg dégg dina la ko wax ba nga kontaan moom d' accord naa mais ñeneen ñi si des ñëpp seen rek mooy ñu jug dem ci terrain bi ñu xeexi boo yi nañ dem xeexi ñu leen ko instant bi jihaat la ñu nekk ku ñu dugg sa kër kooku dem ba di wax sama doom dafa dee douze ans la am moom doomu xaraam la bu génnoon dem guerre yi doomam du dee <coughs> dafa toog ci atelier am te ci ci nday atelier am naan day naan day liggéey ñu ñu ñu rey nday doomam bu tëjoon nday atelier am dem xeexi kon doomam du dee. wax comprendre nga. loolu la wax naa leen ko ñoom ñëpp lancé naa leen message ku ñu dugg sa kër. taal ndeyam bu dee ci gouvernement bi nga nekk jël sa kaba jël sa jabar ku ci nekk na nga na nga yéeg ñu koy ku kat jox sa morom kat loolu jamono jihad amoon na. jeex na dagat na ku ñu dugg sa kër ne geeroo ñu ñu ñu ñas sa ndey takk la jël sa jabar tëddee ku yéeg jox keneen tëdd. loolu moo nar am affaire de bandi la. affaire de bandi la de bandi la. jeex na rek ku jàpp jaww jàpp jël ko yeew ko ku katt jox sa morom ku yéeg jox sa morom bu dee jigéen la ay Frédéric Ndeye yéeg ñoom ñëpp. barki bindee bu ma fekkoon temps ne saa bii nii grand gars yi yëpp xoolal système boobu la ñuy dawee. ay bandi la affaire de bandee koy faj. bandi la rek affaire doomu xaraam doomu xaraam ba koy faj. sëñ Cheikh Tidiane da doon wax ne ni gis na kilifa ci kilifa dëgg-dëgg wàlliw day yor ñaari jikko jikkoy wàlliw ak jikkoy affaire bi phase bandi lañ toll. surtout comme ay bandi. jeex c'est tout punto basta. oui point merci grand la ay nervi yi di dugg ci ay kër fekk fo ay góor lëng ñu ne tey dinañ doon doo wut jaasi semaine mu dugg nga gor baat bi benn yoon da ngay tafu mu dugg nga téegal ndeyam. <laughs> waay cot yéen da ngeen a feebar ko yéen vous êtes malade da ngeen feebar yéen barke salaat fatiha doo leen nit waaye yow nervi nervi man nervi rey rek je te tue moi rey rek man su ma la jàppee damay rey de du ma bay kenn waaw man moom laa jàng sax rey armée rey rey rek lañ ma jàngal rey je tue fu ma dóor nag du ma raté sib tireur la fu ma bàcc mu leer allo oui allo Kandaba waaw nu mu demee saa bi nii man même man maa ngi nii si dox pa booy nañ jàppale booy nekk zig. waay su booy waaw booy booy nekk zig booy dañoo soxla coop dañoo soxla ay affaire ak essence. parce que essence ni gars yi renfort yu ñu yónni nii nous ça nous fait pas peur waaw te booy parce que am nañu ay éléments yu baax on a des bons éléments sur le terrain am na ay booy xam ne daf la deux jours nii même plus booy dox booy def nañu ay groupes yu mool booy fépp la ñu siy tàgg. Mais comme le grand a dit tout à l'heure, il y en a qui viennent juste pour gâcher, juste pour qui. Nous, on n'est pas dans ça. Ouais. waaw On très fatigué très très très très très fatigué grandement ñu nekk fi ay non on est très fatigué parce bat ça de vos chances, parce que moi, di wax di wax di boy ils ont pas des gars avec qui parler sur le terrain même sur Sénégal ils sont obligés d'appeler à la diaspora ont une connexion Comme à la diaspora pour rappeler pour les oriente loolu c'est pas loolu loolu ça ralentit un peu les choses quoi. Mm-hmm. xam nga wa wa ça ralentit un peu les choses on a pas les gars parce que amuñu suñu grande une nekk pour nous. ils sont obligés d'appeler les gars qui sont là Nous ça ralentit un peu mais bon c'est pas grave petit à petit parce que boy sont pas encore habitués mais boy ils sont on a une jeunesse très consciente mais suñu boy ay cinquante boy gars <laughs> si je me trompe pas vous na benn pas avoir da baax boo xam naa mu parce que si nous demain ça il faut nous collecter les oui un faut Nicolas euh, moyen parce qu'il il faut nous le ay flash quoi. il faut que nous le ay flash, il faut que nous ah. ay flèche empoisonné il faut que nous high ay flèche il il faut que ay flash, il faut que former il utiliser voilà il faut ait des gars qu'il y ait des gars. non non, non, non, il faut ñu former utiliser flèche C'est très simple c'est très facile nga Nous ko nu muy flèches, flèche naka la koy nous ak naka la koy viser mm-hmm. boy viser boy boy booy boo xëccee ba mu dang booy déclenché bul noy, mm-hmm. bloquer respiration bi nga mm-hmm. sa cible boy yi nañu jappalé boy matériel bi il faut ñu wut ay c'est ça. très véridique j'aime bien les boy C'est ça. ñu ay boy sont yoo waaw xam nga fi may boy très nice boy en plus boy li mu gën a boy boy il t'envoie des vidéos <laughs> boy cest boy ok sont plus chauds que toi. le décalage horaire nous nous ça nous ralentit le décalage horaire. d'accord nous les États-Unis wala kii faut nous ñu am booy après. ok d'accord ok fii moi il faut qu'on se bat. Euh, duñ fi bàyyi on on va pas laisser les gens là continuer à nous à nous prendre pour des otages là D'une fille. am fille. Voyons. am Aïe flèche. yow ay flèches après dinañ leen wax ci pet lan mooy empoison bi nak nga koy empoisonné flèche wow. waaw waaw Boy, soxla nañu soxla nañu matériel de soxla nañu matériel de bu ñun parce que Macky Sall mi ngi jël suñu dem ay armes on s'en fout fils c'est le combat il faut continuer Gagne. continuer leen gis ngeen temps am ni di wax moment bo duñu am pour live waaw am jot de motax buñu amé jot rek dañ ko ci maximum possible sous peu de temps nous am temps sous peu de temps nous am temps pour wax mais comme nous ngi ci ngi alors dañuy nous dañuy ñëw taxaw dañuy taxaw mhm. oui Euh, bon juste pour participer ci kii bi rek wax suma xalaat. waaw. Euh, avant tout avant tout may laajte ndax euh, Ziguinchor boo yaayee xeex ba tey. ah mais mais fa mais résistance bi fa la nekk sawaay hmm. fii kay amul laaj ñun ñi ngi xeex. ñi xeexul ñi xeex. voilà voilà léegi léegi xam nga tamit waa Ziguinchor boo xoolee ñoom ay nit kese lañ. ay nit kese lañ te dañuy sonn aussi yaa ngi dégg. Hmm. ah léegi nag il fallait que gars yi jàppale leen train bu gën a gaaw parce que comme li ñuy wax rek enjeu bi Dakar la te Dakar waaye ñoom guddi bi rek la ñuy bëgg di xeex te loolu mënul sottal affaire yi mënul gaawal affaire yi aussi. non non non non il fallait que bëccëg bi ñoom tamit ñuy xaw a def dara quoi. Mhm. il fallait que bëccëg bi ñuy mën a def dara pour bu ko defee affaire yi gën a gaaw waaye su nekkee guddi gi rek la ñuy bëgg di xeex xam nga tamit affaire yi day xaw a yéex quoi affaire yi yombewul noonu. waaw waa Ziguinchor mun ñoo xeex combat bi yépp na ngay xeex am financièrement tamit mënuñoo xeex combat bi yëpp il fallait que Dakar waay enjeu bi foofu la bloqué économie bi yëpp bëccëg bi yëpp dara du circuler kenn bu mu circuler bis du circuler liggéey du am xeex bi bëccëg la ak guddi léegi waaw loolu Dakar waay war a occupé fi mu nekk nii léegi guddi bi bi tamit guñ bàyyi dara fépp di boy mais liñ war a def avant tout bëccëg bi ñu fexe ba économie dara du tox

kagule leen ngeen paré ñi xex benen mu joggé fi. alors grand waaw. waaw naka mu nak sa ba ma ngi toog a wàcc nii. waaw jaajëf. waaw mais dafa am luma la bëggono dugalal quoi pour comme ça mu dem ci combat bi quoi Youssouf. waaw ok. haral ma ci envoie ma lay laaj quoi da nga bëggoon nga. envoyé ma fu ma la koy envoyé WhatsApp ou bien comme ça. waaw ok envoie ma un message rek. ñu diwal ma benn salut rek wala merci rek ma ma jot ba am la quoi. Mhm. mais envoyé naa la message sànq ni xoolal sa WhatsApp. ok d'accord, accord ok ok. Mhm. toog fii di xaar fi ay détails. ñu ko def quoi.

Nobunyu, quoi. -hmm. quoi. Voilà. Mhm. Ok. il يفونيك quoi? oui ok en a la quoi ok. mais a un problème il ok d'accord allez c'est bon y' a pas de problème ciao. après nga nga nga nga quoi récépissé bien photo ko ce tour nekk ci quoi ok waaw dinaa ko photo dama koy photo rek ma envoyé la ko photo bi directement ca numéro bi quoi. waa jaajëf ok. am amul. ok. gaañ voilà. euh, nous arrivons léegi ñu egsi ci fin bi ñu toog fi di di. voilà pas là pour euh, parler des voilà le combat là dañuy xeex dañuy continuer. boo leen ko bàyyee rek. wala boo leen ko bàyyee rek c'est fini ah. ça moom moo wax leen ko quoi.

weyalong ketele moy uh -huh. bon iko nga message ok nga message le sofide iko boy le foyi domoro ke way way domoro uh -huh. Mm-hmm. Oui. Voilà, mais oui, il faut chandijol de là, Il y a un qui là. tabila. Il y a de là. C'est facile. Non, il mais il ko qui est Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Ah. Mais il était. Jumalo, Jumalo Bidje. Uhum. Uhum. Oui, ok. Bon, maintenant, du coup, du coup, euh, si, tu, si tu peux me, me, me trouver les contacts, euh, vraiment, euh, ah, Aha. Musolo. Aha, kinye namba. kodi kodi kodi kodi na boyon tek okay okay okay akotoba akinyena a way akinyena Voilà. Ok, à a À a Parce qu'il même, il même. Voilà, voilà, voilà. Ok. Oui, non, moi je parle de Jigenshore. Euh, je parle de Jigenshore. Ah, ok ah waaw ah, ah Didier Fempol Thaale ay moo Thaale mënu be sandi jodana pour auto ok d'accord ok qu'est-ce kay euh, ok sa ministre de la guerre dina bang ok donc euh, voilà euh, ni Ousmane demul wuy ji te waa Ziguinchor dañu taxaw xeex bi euh, ñi nekk ci département Bignona de ci village yi muy Kagnan ce sukk sati baabu département ci Bignona di kaññaade euh euh, euh, euh, région département de Sédhiou Oussouy, Ziguinchor hein Il Hein, il faut il faut il faut mandiralié Ziguinchor manjaajiran pen là. voilà il faut mandiralié Ziguinchor manjaajiran pen kuñila atol munu le euh, département wol to Boulouf, Kalouna et Fogni Moui Babma Bignona département de Bignona Moui Kanya si Oussoui, Oussouye Tanaf il faut aller Founti, aller funti aller état Ziguinchor kol maa koy atol munul be wulo kono je al sati mo awuli ali tiba alal kundan ali funte ali ta mul makoy hein eh? du kundan si nyela solo di kanu si balanda solo man jaji rampe ku nyela c'est ça jiito man jaw tika fu tika jiito foni bañ be kasanke nula quoi ok merci gagne fi lañuy em donc euh, on se donne rendez-vous ki euh, ngon euh, euh, Philippe Badji euh, ñi ngi def luñu man quoi voilà euh, aussi tamit gam nga gars pour matériel, bi il faut boy chop le ak donc euh, bi matériel surtout il faut que gagne kep ku a les na ngeen ñu wara waaw ñom jigi ñom KS Kof ñi ngi ku ci activiste def collecte alors donc euh, gars boy war am war am i amuñu jot pour tok ay non non non ndox voilà des chandises ak ndox ci combat bi sandwich voilà Chandises ndox ak essence ak on s'en fout oui voilà confection des flèches Les ay moniteurs yi boy booy ay flèches tout voilà loolu la ñu am xeex bi vraiment euh, euh, euh ne am

waaw il faut il faut gars cotiser quoi a pas les gars Il faut ngeen cotiser gars pas les rek n'y combat bi moom euh, awa Bayo, euh, numéro baa whatsapp nga quoi man moom nëbbu ma the sàcc suñu quarante cinq milliards dem jënd arme jox say tukulóor yi nga jënd Mauritanie ak fu ne ak doomaaraam yi ñëw di tirer Sénégal i basta fuck you waaw allo Père Ba waaw allo waaw allo oui maa ngi lay dégg waaw waaw waaw maa ngi lay nuyu bu baax di di wax booy booy yi nekk Dakar war nañ génn xeex war nañ génn xeex affaire bi amul ralentir. Mhm. dañu war a génn xeex. oui. dañu war a génn xeex te Sénégalais yi da baax. Sénégalais yi dañuy yeewu Sénégalais yi pour ñu yeewu bu ñu yeewul ñoom foog nañ ni Ousmane Sonko rek mooy am problème Ousmane Sonko Sénégalais yëpp ñooy am problème. Mhm. il faut ñu xam ko du Ousmane de. xam nga lu tax mu wax la loolu. Mhm. la junj lu ndaw rek est gis nga waa Fuuta jéem xeex est-ce gis ngeen ko. non non non. donc Sénégal yi xam ni gars yi dañ leen bëgg yeewu tënk leen bu leen ko nangu génne xeex ak ñi génne xeex ak ñi lu leer laa la wax gisoo benn kenn kenn ko génn Fuuta xeex. aw Bayo le numéro est là 729 143 191 729 143 191. Uh-huh. ndaw si dugg foofu keroog naan ay bu ne wax affaire waaso. affaire waaso waaye ndaw si moom wow waaso am na Sénégal boobu dafa leer ci bopp ñi man tontuuma ko sax père ba. Macky Sall moo leen ndaw soosu Macky Sall ñoo ko fii ethnisation administration bi. tey Sénégal boo xoolee deux pour cent ci te Sénégalais bu ñu gisee tey ci waa Fuuta génnuñu waa Fuuta xeexuñu yeneen xeet yëpp ba ngeen xam ne benn xeet bi ñu ngi leen àndale pour def leen jàmm bu ngeen toogee nag ñu def leen jàmm kii du xeexu Ousmane Sonko xeexu yéen ñëpp la ngeen génn xeex Dakar Kër Massar Thiès génn leen continuer xeex bi pendant une semaine dix jours quinze jours il faut ngeen continuer xeex ba Macky Sall dem waaw loolu laa amul ak ba ok ok D'accord. Fi mom amul fi fi ethnie kay waasoor kay ñëpp deug ñi koy wax Ñi koy dana si politique waasoor am na fii la toucolorisation de l'administration, de la police de la gendarmerie c'est tout voilà Amna fi. fii Macky Sall loolu la ci waasoor la taxaw waaye loolu moo fi am ku ko nangul nak sa affaire la quoi mais loolu lay dëgg oui allô. oui allô. sax sax mais fii fii fii kay waaso am na fi ba pare ñoom kay tàqale nañ allo waaw allo salaamaaleykum da baax maaleykum salaam lay ngi lay fay man ñii daal bu ñu bu ñu taxaw bu ñu sonn bu ñu tàyyi yóbbu nañu Macky Sall ardo ba pare waaw dëgg doggali ko rek ko moo ci def xoolal bu leen kenn ruube bu mhm. yeboo sax fuuta mhm. ñu toog ne ba ñu xeex xeex ba pare ndax yàgg nañoo doon ay jaam. Mhm. jaam yëpp Fuuta nga leen di jël. Mhm. kon nag kon su fekkente ne loolu am na. Ah, ak ah, ak xanaa avant ñenn ñi parce que Cheikh Omar Fouti yu de xeex na xeexam. Mhm. waaye nag am na ci ñoo xam ne ñoo ko jaayoon parce que ay mbokkam la ñu woon. waaw kon tey tey tey ñoom bu ñu seetaanee lii c'est normal Ziguinchor nag du question man man xam nga man mi wolof la séeréer la. de tous les

Uh-huh. ñuy sol ay garambubu di direeku nekk fi di nootaat askan bi mm-hmm. fii sëriñ amatu fi sëriñ Touba nee na topp leen ma ba boo leen gisatul samay doom ngeen topp téere yi ñoom ñu bëgg a toog di noot askan wi pour ba kañ ba kañ ba na jóg ñu xeex xeex bi mu jeex benn yoon fépp tàkkandoo même bu dee waaw sa may ko mu daaneel ma jël la quoi waaw ñu defar ko dëkk bi ci boppam jaxasoo na jaxasoo goo xamante ni toog waratu kenn ñun ñëpp war a jóg taxaw. ok ñëpp kon nag. Mhm. bu ñu faale affaire sëriñ yeex na fi Macky Sall wane waxoon na ne vous êtes des simples de de de mhm. wane na ko ak kan wi la mu bëggoon am na ko mooy wane ne leen yéen du dara wan na leen ko. ñoo koy ñoo ci def di layam layam ak di ko topp. di maral waye ñom pare mom pare na ci ñom te bu bu ñu yaakaare ñoom dinañ mucc gis nga bu ñu ko bayé ba mu pare ci ñom la jëm ci waaw ndax mom gëmul affaireu sëriñ du julit du dara du tous kon bu ngeen yeboo ngeen jóg casamance gatché nga lama ñeneen ñi ci dess nak bu ngeen yeboo ngeen tak seeni dal ci jox bala ngeen di am gatché ëlëk merci beaucoup oui alors grand wow eh, mais mari ngi maa ngi ci kii ci ria bi nii mais mu ngi may laaj eh, fan nga ne Suède la tëdu. waaw. Suède eh, Suède ci. mais xoolal li ma la yónnee xoolal li ma la yónnee moom la. mais gis naa ko mais grand bi affaire bi gisuko ko fii. bon euh, mais non moom fan la nekk. mais ñun ñu ngi Belgique fii mais ban stade la wax ban stade fan nga ne. mais mais mais attends attends may ma. parce que non may ma may ma defal ndànk sa waay. fais doucement may ma rek man ma jël la hors antenne defal ndank Oui, allô. waaw grave. Euh, xaaral maa ngi ci riyaa bi mais lan lan fa gis lan lan nga fa gis waaw ah, bon ah waaw waaw mais attends xaaral xaaral xaaral may ma waaw waaw è comune. Tito Fumayo. waaw mais yow liiral li ma la yónni liiral liir ko Oui, mais lis ce que je um envoyé. Pa Modou euh, xoolal euh, Lund mooy ville bi Suède mooy dëkk bi dëkk bi Lund mooy ville bi Suède mooy dëkk bi my boy mais Lund Lund Lund stade bi mooy Lund L U N D Moy mooy ville bi non defal Suède rek Suède rek Suède voilà Défense Suède Stockholm Bien. Eh bien voilà. gagne. Voilà, le combat continue. Djerjef, merci. Donc, euh voilà, on se donne rendez-vous suba inshallah Euh, ngoon pour ñu xool évaluation bi Nous muy évaluer ñu xool ko après contenu nous ñëw ñu continuer information bi euh, bu leen fàttali ni banco Branco dafa ne gars ku am information euh, boo leen Amé, ay vidéo ay ay image ci massacre ak assassinat yi ak yooyu ak texte yi ngeen de recouvrement bi ngeen yónnee ñu ko comme ça ñu ñu partagé ko. Euh, partage partage quoi ak Branco quoi waaw ñun partage quoi ko Branco Bon ko amé partage partage Branco quoi ok voilà donc leen sant leen gërëm euh, ma jël système bi voilà bala bala may faté astu oui wayalo wayalo uh-huh. uh-huh. non nga bat nga nga nga coupé ok allez alors donc di jox rendez-vous à 20h merci allez les gars